partie culture avec notre invité que nous allons recevoir euh, dans la deuxième partie de cette émission. Et puis euh, nous euh, parlerons de de son engagement auprès d'Idrissa Seck et du peuple sénégalais. Lui, c'est l'honorable député Thierno Bocoum. Indépendance avec l'acte 3 de la décentralisation. Nous restons toujours dans ce sillonnage et Nous irons directement à Mbour. Et euh, à Kara, ce matin, ce sera notre plat du jour euh, confectionné avec Sophie. Donc le détail de ce, de ce plat ou de ce, euh, de ce goûter pour pour nous les parents, le soir à peu près vers 17h euh, d'avoir bon pain avec une bonne sauce rouge accompagnée avec des akara ou bien euh, de pastel. avec un peu de piment. Je pense que ça peut faire un coupe-fin avant d'attendre le dîner. Mais pour moi, je pense que c'est un dîner assez complet parce qu'akara plus pain, ça donne tout autre chose. N'est-ce pas, Khadija? Je pense que tu es d'accord avec moi. Tu es féru de, de ce genre de goûter dans l'après-midi, surtout quand nous sommes euh, mercredi ou samedi. Ça fait plaisir hein, de passer à côté, de trouver la dame, euh, la béninoise du coin, nous faire des petits akara. Voilà ay pastel. Mhm. wala bañ a kii nu mu tuddati sax bañ a suukar. beñe waaw mooy beñe boobu di fuur. Ah. no pas beñe faas. beñe faas ak <laughs> ak kii dafa ute. beñe mburu faas moom xam nga beñe faas am na boobu mooy bi ñu defaree pain mais bii farine la levure ak ndox ak sucre kese nga bàyyi mu reposer ba kii bi fuur ba yéeg soo paree na nga def sa diwlin bu tàng coppati noonu def ci biir. nga xam ne day tourner rond ni après nga wis ci suukar. di détail yaa jël taxaw. non détail par détail non mais ku xamul ñu ñu xamal ko. j'aime pas les beignets akara oui pastel oui mais pas beignets. tu n'aimes pas les beignets pourquoi. c'est sucré. je sais mais loolu yooyu su la neexee tu peux rajouter du sucre comme non. c'est pas les beignets sucrés sucrés hein. Euh, bi ñu nekkee collège saa ñu hmm. daan wàcc pompier bi dama amoon benn copine chaque jour bu ñu wàccee mu jënd beñe nu mu tudd Willy Pande ko <laughs> <laughs> chaque jour mu jënd beñe donc l'odeur après je supportais pas ah, waaw loolu fa laa ko jëlee ba tey je suis pas beñe depuis mm. euh, collège ba tey je suis pas beñe waaw ah yooyu neex na de ñu def tuuti kii bi nii soos bu yem bi. waaw sauce surtout boo demee nag ci. dafa nga teg akara yi ci assiette def sa sauce su kaani ak sa sauce. non yooyu sax non xam nga yooyu sax c'est c'est tout à fait c'est moderne. mais temps bu yàgg ba. Mm. boobu temps da ngay jënd sa mburu fukki dërëm. nga dem nag ci euh, les professionnels du akara c'est-à-dire euh, euh, voilà les les defal la soos defal la akara bi yàlla buñ ci sànni ñaari pastel nga ub ko nag mu tëj tëju <laughs> nga bës ko. bës ko. fii boo defulee attention sax est-ce lay seetaan. xamal ni ngay waxee bi euh, yaa ngi saali sànq ba tey. <laughs> yàlla xam ne yàlla xam ne saalituma parce que alpulaar yi ñuy seetaan ñoom ñoo gën a bëgg a xam tey Sophie naka la nar a toggee euh, ak araab. donc tout à l'heure dinañ am détail non je donne les détails c'est tout. sànq ba léegi fële nga nekkoon dañ laa woo ba sonn pour nga ñëw taxaw ñu démarrer. <laughs> bon dem leen xoola ah, parce que man yàgg naa taxaw de yow yaa fa <laughs> la suite dans des Akara ce sera tout à l'heure nous passons à l'actualité la matinale la revue des titres et juste après comme vous le savez on se retrouve pour la suite de ce Good Morning Bonjour à tous, merci de suivre les informations de cette matinale. Travailler vite et bien en mode fast-track, c'est le label que le chef de l'État veut imprimer au plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall a fait cette révélation lors de la réunion de partage et d'évaluation du PSE. Il a par ailleurs annoncé que le Sénégal a actuellement atteint un taux de croissance de 4%. ambitionne d'atteindre les 5,4% cette année. Un bon résultat pour euh, la réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent d'après le président Macky Sall. C'est un reportage de El Hadj Malick Cissé et de Libas Ndiaye. Considéré comme une référence dans la politique économique et sociale du pays, le plan Sénégal émergent marche à grands pas selon le chef de l'État. Entouré par les membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé, de la société civile, des élus locaux, le président Macky Sall a échangé avec eux pendant quatre tours d'horloge sur les projets et programmes du plan Sénégal émergent. Au terme des discussions, ils ont ensemble levé les contraintes au plan Sénégal émergent. J'attache du la préparation des projets et programmes à leur évaluation avant toute éligibilité au financement public pour garantir l'efficience dans l'utilisation des ressources financières. Sous ce rapport, je demande au Premier ministre de me soumettre avant la fin du mois d'avril 2015 le projet de décret organisant le cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques. Après avoir rappelé les projets phares du plan Sénégal émergent comme le pôle urbain de Diamniadio ou la cité de l'émergence qui sera bâtie sur l'ancienne gare routière de pompiers, le chef de l'État a affirmé que sur le plan macroéconomique, le taux de croissance du Sénégal qui est de 4,5% atteindra 5,4% cette année. L'objectif est de réaliser des actions prioritaires pour le développement du Sénégal. Ces performances sont également notées dans la réduction du déficit budgétaire, la maîtrise de l'inflation et du niveau de la dette publique. En outre, les recettes budgétaires sont passées de 1 464 milliards de francs CFA en 2012 à 1 673 milliards en 2014, sans aggravation de fiscalité et avec une meilleure rationalisation des dépenses publiques, aussi bien dans leur volume que dans leur structure. La maîtrise de l'inflation combinée au repli de l'euro sur le marché de change a également permis d'améliorer la compétitivité de notre économie en 2014 de 2,2%. Les différentes opportunités contenues dans les projets phares du plan Sénégal émergent et qui s'offrent aux partenaires publics privés seront présentées prochainement. En attendant, les partenaires techniques et financiers restent vigilants, le temps de voir l'impact réel du PSE. Le président de la République est convaincu que malgré les résultats satisfaisants déjà obtenus, qu'il reste beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l'accompagnement du plan Sénégal émergent par le secteur privé et l'amélioration des normes de performance de l'administration, ce qui justifie selon lui la mise en place d'un bureau opérationnel de suivi BOS, bureau qui ne dépendra que de la présidence de la République et qui se chargera du suivi du PSE. Son Excellence Macky Sall, que nous écoutons toujours au micro de El Hadj et de Libas de suivi du PSE, le BOSS. Cette structure, dépendant de la présidence de la République, je dirais même dépendant du président de la République, me rend compte régulièrement à travers un reporting de l'état d'avancement des projets et réformes phares. Elle me permet de circonscrire les points de blocage relatifs au portefeuille phare du PSE et de prendre rapidement les décisions appropriées. En complément avec ce mandat exclusif du BOSS, le Bureau Organisation et Méthode, BOM, rattaché à la présidence de la République, veille sur l'animation d'un cadre de résultats à consolider, à consacrer à l'exécution des politiques sectorielles, qui, je le rappelle, pour ce qui concerne le BOM, donc ce cadre va bien au-delà des projets de réforme phares du PSE. Dans l'exercice de sa mission, le BOM va travailler en parfaite symbiose avec l'ensemble des départements ministériels. je tiens à préciser que l'ancrage institutionnel du dispositif du suivi des projets de réforme phare au BOSS et du cadre de résultat des politiques sectorielles au BOM obéit à ma ferme volonté de donner au suivi et à l'évaluation une place centrale dans la conduite de nos politiques de développement conformément à l'engagement que j'avais pris le 24 février 2014 à l'occasion du groupe consultatif. Le secteur privé se dit satisfait de cette rencontre. Mansour Kama de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et Bédi Agne du Conseil national du patronat invite les autorités à lever les contraintes liées au PSE. Ils espèrent une amélioration de la situation économique du Sénégal grâce aux réalisations du PSE. Mansour Kama et Bédi que nous écoutons. Les résultats qui nous ont été présentés sont des résultats très satisfaisants dans la mesure où dans tous les secteurs, les réformes qui avaient été demandées sont entreprises et on le voit aussi à travers les résultats obtenus dans l'agriculture, dans des secteurs comme euh, même l'énergie, où la mise à disposition de notre capacité euh, de production et d'électricité est en train d'augmenter. Il nous reste maintenant à aller vers plus de compétitivité en ce qui concerne le En ce qui concerne le foncier, nous avons l'assurance maintenant que d'ici la fin de l'année, nous aurons enfin cette loi sur le foncier qui permettra à tous les Sénégalais d'être propriétaires de leur euh, terrain et de pouvoir euh, développer les investissements en utilisant les titres de propriété comme des leviers pour le financement. Il y a donc aujourd'hui à se réjouir aussi des décisions qui ont été prises par Monsieur le Président de la République en ce qui Euh, décisions qui ont été confirmées par le Conseil et qui permettront très certainement, dans les mois à venir, de faire retrouver au Sénégal un certain niveau en ce qui concerne l'investissement hôtelier et touristique. Des mesures sont en train d'être prises qui, si toutes arrivent à terme et que la concertation s'améliore, bon, il y, a, il y a de l'espoir possible. Nous avions bien sûr salué pour certains secteurs comme le tourisme les mesures qui ont été déjà prises. Pour d'autres secteurs, nous les incitons à prendre les mêmes mesures qu'avoir un, enfin, un, un, plan que nous mettons en œuvre pour des secteurs comme l'industrie, des secteurs comme l'économie numérique, qui ont des potentiels réels d'augmentation de notre croissance, des potentiels À Giguinchor, l'heure est au pardon et à la réconciliation dans la commune de Kaour. Le retour des populations déplacées de cette contrée du département de Goudom a fait l'objet de discussions à Kaour sous l'initiative du maire de cette nouvelle commune. C'est un reportage de Cher Tidiane Sissé et de Kaba Sissé. On peut pardonner, mais il est difficile d'oublier. Et c'est pourquoi il est bien aussi qu'on en parle, pour qu'on dise nous en Casamance, plus jamais cela. Réconciliation, reconstruction et développement, voilà le triptyque qui le 1er avril dernier a réuni les populations de la commune de Kaour sous l'initiative de l'édile de la localité. Cette rencontre placée aussi sous le signe du retour des villages déplacés de cette contrée du Balantakunda est plus qu'une opportunité pour la sécurité économique de Kaour. Si vous constatez très bien dans cette commune, nous avons 18 villages Parmi ces 18 villages, il n'y a que 6 qui pense que le premier combat du conseil municipal doit être d'abord le retour de ces villages déplacés afin de relancer l'économie de cette Avec euh, le plan déjà qui a été à raison de 4 personnes par hectare, 200 multiplié par 4, ça fait 800 et quelques Donc c'est 800 emplois, emplois directs que ça va générer. Nous pouvons espérer qu'à l'échelle justement de la commune, tous les jeunes peuvent espérer avoir du travail sans des emplois indirects. nous avons besoin de rassurer les populations qui vont faire le déplacement vers Senghel pour y habiter définitivement. Figurez-vous, Senghel était le deuxième après Goudomp en matière de paiement d'impôts. Donc si ce village revenait ça peut être justement un élément important pour euh, générer des emplois, euh, faire en sorte quand même que euh, les objectifs euh, du, du, du, mandat du président de la République, que nous arrivons quand même à les atteindre. Kaour émergent dans un Sénégal émergent, je reste convaincu c'est possible. entre autres doléances soulevées par le maire de Kaour pour l'épanouissement et la sécurité de ses administrés figurent l'électrification de la commune, l'accès à l'eau courante et surtout le remplacement rapide des classes en abri provisoire dans cette localité très affectée par le conflit armé en Casamance. Merci de nous avoir suivis. Pour avoir une excellente journée, essayez de combiner plusieurs énergies comme celui de Philly, de Papsambe, entre rigueur, pragmatisme, assiduité. Faites un beau cocktail qui va vous accompagner toute la journée. Merci, à tout de suite pour la revue des titres. La revue des titres de ce mercredi 8 avril 2015 à la une de Sud Quotidien, Mamles Camara, journaliste, analyste politique. Il n'y a pas de rabiot dans un mandat démocratique. Mise en œuvre des projets du PSE, Macky Sall tend la main au secteur privé. Crise dans le système éducatif, qui sauvera l'école? Une interrogation à lire à la page 8 de Sud Quotidien. À la une de Libération, PSE, Cité du Savoir, Business Park, logements sociaux, université, chemin de fer, usine de dessalement, hôtel, centre anticancéreux, etc. Macky Sall pose 2425 milliards sur la table, 70 conventions de financement pour 100 1283,4 milliards déjà signés. Maître Wade Courtise, l'ancien maire de Kolda, deux envoyés très spéciaux chez Beka Diop. Le quotidien, dans sa livraison du jour, augmentation de l'argent en circulation. Amadouba peint un Sénégal liquide. Entre 2013 et 2014, la circulation passe de 620 à 685 milliards de francs CFA. procès Hissène Habré, deux magistrats sénégalais assistent le Burkinabé. À la une du quotidien national Le Soleil, évaluation de la mise en œuvre PSE, une première année satisfaisante, Macky Sall. Nous avons de progrès à accomplir, 166 milliards de francs CFA mobilisés sur fonds propres vers un cadre harmonisé de suivi évaluation des politiques publiques. Procès Hissène l'Union africaine a les juges. Direct info Macky Sall sur le PSE, évitons de tomber dans l'autosatisfaction. Maroc, trois jeunes appartement. Procès de Habré qui sont les juges chargés du dossier. Point d'interrogation. À la une de enquête, achat de trois immeubles aux alentours du palais. Maki Deguerpi, ses voisins. La sécurité présidentielle s'installe au centre-ville. Une loi de finances rectificative n'est pas nécessaire selon les autorités. À la une de Grand Place, drame au Maroc, trois Sénégalaises meurent par asphyxie. Contre-offensive dans l'arène politique, Réumi Pêche à l'APR. Les frustrés dénoncent une, justice sélective. Le témoin quotidien Sokosim Dangote Ciment du Sahel, la guerre des cimentiers. Résultat du PSE Macky contre l'autosatisfaction. Transport public peint en beige, beige marron d'Iboka. une agression de la République. Du sport avec Wasport, deuxième victoire de Meuse sur Balagay 2, les dessous d'une défaite. Deuxième journée du TNT, quelle affiche pour les quatre Profanation de tombes, les sœurs de me racontent. Il y a des pressions pour qu'on ne porte pas plainte, le silence du gardien du cimetière et du fossoyeur, les lieux placés sous haute Stade le quotidien du sport Coupe de Suisse unique buteur contre Zurich Moussa Konaté envoie Sion en finale du Sunu Lamb Thierno préparateur mystique du Lion je savais que Balla allait tomber Balla doit nettoyer son entourage des lutteurs le combattent Balla a tourné la page de la lutte certains cherchent à m'écarter c'était tout pour la revue des titres de cette matinée Voilà, c'était la revue des titres dans le kiosque à journaux. Et puis, nous retrouverons cette même revue à 13h en langue de Côte Barma. C'est parti, Français pour tous avec Monsieur Thioban. Avant de retrouver Sophie qui se prépare, micro en main, c'est comme un pistolet à côté. Et sans oublier les accessoires qui vont avec, c'est-à-dire toc et puis chemise ou... Euh, comment on appelle ça encore C'est chemise, non Toc ou quoi Comment ça s'appelle Tenue de cuisine. Ah, tenue de cuisine. Voilà. Ça tombe bien, c'est dans Français pour tous. Bonjour. Aujourd'hui dans Français pour tous, le verbe impacter. 1. Impacter est un anglicisme calqué sur to impact qui signifie percuter. On ne dit pas percuter sur quelque chose, on ne dit pas non plus impacter sur quelque chose. La preuve, cette phrase que le dictionnaire Larousse donne comme exemple, la crise impacte le moral des ménages. Cette phrase du Larousse prouve que impacter signifie en réalité avoir une incidence généralement négative. En conséquence, impacter négativement est un pléonasme. Il faut peut-être lui préférer l'expression avoir un impact négatif, d'autant plus que le verbe impacter, contrairement à ce qu'on croit, appartient au registre familier. Et voilà, impacter, c'était le verbe de ce matin à accorder avec une phrase ou à utiliser impact, impacter, le verbe. Et puis, il y a également l'adjectif. Merci beaucoup, Monsieur Thioban. Nous nous retrouvons demain, Inch'Allah, pour un autre mot ou un autre verbe de ce Larousse. À défaut, si vous n'avez pas la possibilité de comprendre, vous pouvez prendre le dictionnaire et puis euh, essayer de, de, de, de voir la définition de impacter, comme tu impactes dans ce que nous faisons. Sophie impacte, mais bon, tu impactes positivement, parce qu'on peut impacter négativement. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. oui nice. yaa ngi si jàmm. nice fine. yaa ngi jàpp capacaya. Horu Baba. Ah love. Ah. j'avais pas remarqué. Ah <laughs> c'est des boucles d'oreilles où c'est marqué love. <laughs> love de qui. Love comment on peut aimer passionnément. Mmh. à la folie. Mmh. tendrement. Mm-hmm. et quoi encore ah. tous les trois. <laughs> boobu de kon kon de love nga ak doole. tous les trois. hein tous les trois. c'est l'amour. Ouais. et puis love ci kaw love ci suuf quoi. gis nga. c'est comme moo tax man la tous les trois. c'est comme peace and love peace devant love derrière. <laughs> non bii amul quoi. am naa de. j'existe bel bien. Ah oui. <laughs> dara raxu ci dama syndrome mu Cheikh bi rek moo ma jàpp. moom comme ko moom rayal ko <laughs> nga bañ leen mu ne non man bañu ma de dama leen yéene safara. <laughs> xam nga ni non Cheikh du dem. non non à à ne pas confondre c'est original bi. non non moom ça va quoi moom il est cool. ah <laughs> il est cool man maa xaw a yor jikoy Samba Mbayaan rek. <laughs> waaw mais boo yoree bëggee nit ki kii xam nga nooy def ba mu jaarale bon <clears throat> on rentre dans le vif du sujet tey ay akara. Mhm. lañu ñu fi indi. Mhm. alors akara ñëpp xam nañ ko maa ngi koy tooña Khadija ci suba. Mhm. ne ko l' après neex na lool. ñu dem jëndi akara parce que nit ñi de temps en temps da koy def. mu neex ko. Euh, mën nga toog également nga am sa benn xew. Mhm. wala nga am sa benn tour de famille. Mhm. le soir nga defar ay akara pour mhm. changer un peu. voilà donc dafa nekk loo xam ne dafa original. assez compliqué. et puis dafa am benn euh, je veux dire benn ay nationalité yoo xamante ne ñoom. dañu ko mën. parce que ñoom ñebe bi ñu utiliser ñebe local bi. la jël xooj ko. génnee euh, pot bi. weer ko ba mu xaw a wow. yóbbu ko eh, marché. Mhm. ñu wal ko. Mhm. bu yàgg ba sax machine bu koy wal amul woon. da nga ko daan dëbb ak sa loxo. gën bañ koy dëbbee nag ak gën yi ñu am ñun dafa ute. ndax ñoom gën gi na doon yaatu. nii ba pare xóot waaw nga dëbb ba mu mokk. mokkee ba pare nga soog a nag di riij. di yokk ndoxu xorom bi. di riij ak a metti ay Sophie ngay fuur ngay riijaat muy gën a fuur. <laughs> ëpp na ëpp na non looloo metti mais bon maintenant. Mhm. on est au vingt et unième siècle les étapes ça change mhm. ma bàyyi la nga wax ñu tey lan nga ñu fi indil mhm, de la chapelure <laughs> hmm? de chapelure euh, de la chapelure <laughs> pardon poudre de maïs. gis nga de maïs bi. moom hmm. la am nii tey. maïs euh, <laughs> de ñebbe. non mais c'est à cause de moi voilà poudre de ñebbe. oui de ñebbe moom mhm. la am ni euh, à côté tey moom la ñu utiliser pour defar euh, bien sûr suñu akara yi. ñu mhm. utiliser euh, laitue utiliser tomate ak li nga xam ne mooy oignon pour defar suñu benn sauce rouge boo xamante ni mhm. mooy accompagner suñu. sauce kaani bi. waaw pomme de terre yi c'est pourquoi. pomme de terre yi moom tomate yi laay boole damay defar juste benn salaat boo xam ne mooy accompagner suñuy. Euh, akara yi suñu akara yi. d'accord pour gën a relever suñu assiette. Mhm. bañ a lekk akara yi noonu kese accompagner ko ak sauce rose bi. ok tey euh, ma utiliser aussi maïs. maïs waaw man nag fu ma jë man fu ma génnee tey ak maïs. da namu mboq. non namu naa ko sax. Mhm. dama bëgg maïs du. waaw waaw surtout mu ñu kii ba. kii euh, ay en poudre. Mm. moom laa utiliser tey pour li nga xam ni mooy. waaw ah, kon akara yi mën nga si def tuuti ay. waa da nga ciy def ay. su fekkee sa kër benn gustaay ngay jël dëbb ko soo paree la au moment nga koy rëcc nga koy defaale pour nga xam ni akara bi dafay gën a am. Hmm, ça sent bon bi <laughs> bon en fait laaj lay xeeñ quoi. <laughs> plus truc euh... quoi parce que laaj original. Mhm. ça c'est quoi. lii épice c'est du pour. <laughs> moom la portugais naan malagueta. Mhm. tu mets la mélange la. li mélange la paprika ak épices yi boo koy utiliser du jar ngay hmm. utiliser ay cube parce que dafa dafa am xorom boppam hmm. am ay épices boppam yoo xam mooy relever sa góobu togg te la plupart fii hmm. dañuy utiliser ay épice ci seen togg c'est vrai am nañ aussi euh, bi nga xam ne neuf épices moo ko composé neuf épices dont thym <laughs> loolu laa xàmmee mhm. xàmmee naa ci tuuti paprika mhm. euh, herbe de Provence mhm. Ok. et puis un de poivre ousi <laughs> oui ak. seetlu naa ci poobar di poivre ak euh, persil bi ah, mooy persil séché bi. ah lii mooy persil. Mhm. Hmm. persil bi dafa am tuuti poivre. oui day am poivre. ak mélange persil coréen. Hmm. persil chinois mélangé ko. mooy mooy gis ne góob bi muy dégagé nii. yii damay togg say pat boo toggee say pat ba mu ñor. nga def si nga def ko ci say boulette de viande hachée gruyère bi. waaye mën na ànd ak ay euh, comme ni ñu defaloon. croquette de poisson ah, non no non nuggets yi non nuggets si c'était c'était super. yooyu moom Sophie n'en parlons même pas. alors dama gëm ne jigéen dafa war a am ay ay cette épice. Mhm. ay euh, coriandre mhm. par exemple tout ce qui est thym tout ce qui est. ail euh, tout ce qui est laurier séché yooyu yëpp dafa am solo nit di ko am. waaw cuisine de temps en temps nga koy génne di ko utiliser ci yi nga xam ne moom ngay defar parce que day gën a relever sa goût togg. Mhm. te et puis dafa baax pour la santé. ok doo fi nekk di utiliser. yenn arômes yeeg. Euh, mhm. truc de ce genre. ok donc, c'est naturel wala à défaut amuloo persil bu frais. Mhm. tu peux prendre le persil euh, séché. nga yokk foofu alors fii nii euh, poudre de de de ñebe bi yaa ngi koy tudd. maa ngi mhm. diw ci diwlin bi en même temps. waaw euh, <laughs> alors bu koy tooyal à peu près ñaata. Euh, kaasu ndox la ñuy soxla wala dañuy def juste un dosage ba nga xam ne. Mhm. bu demee ba xaw a dang tuuti. yokk tuuti éviter nag mu liquide ba mu ëpp parce que non doo ko mën a. merci beaucoup parce que ni tey dañuy defar benn eau tiède parce que su ma jëlee euh, eau normal bi. waaw parce que bii c'est en conserve. d'accord dañ ko defar ba pare def ko ci ay paquet donc euh, poudre bi automatiquement da ngay gis ni dafay xaw a sèche. Mhm. donc il faut nga jël eau tiède pour nga mën ko defar ba mu mën a relever mais bu fekkee yaa jënd sa ñebbe xooj ko yóbbu ko à la machine. Mhm. jarul ngay jël li nga xam ne mooy eau tiède mën nga jël eau normale. defal ko ak moom ko ak moom ba nga xamante ne am nga pâte bu compact parce que su liquide boo ko defee ci huile bi rek mhm. automatiquement da ngay gis ne day baissé alors ñu fàttali ne mën euh, poudre bii nii mën nga koo def à la main mhm. def ko ci benn bool mais da ngay remuer nag sa loxo parce que il faut mu xaw a fuur tuuti pour mu mën a léger mhm. boo ko coppatee nag ci lay dem ci dëwlin bi automatiquement tourneel boppam merci la leçon est sûre non non non merci Nini <laughs> merci Nini <laughs> bon yow mi yaay dem parce que yaa ñu jàngal bis bu jot euh, ay ay petits surtout loo xam ne gëj nañ ko gis ce qui ressort de l'originalité akara yàgg na fi am te du fi dañ parce que ça a été le goûter préféré de certains mm-hmm. et ça l'est toujours parce que à part les akara il y a des beignets donc beignets yi peut-être dañu ci ñëwal ci beneen jour mm-hmm. avec un autre l'autre astuce euh, que tu vas sortir de toi-même de ta bouche parce que c'est important mm-hmm. ce qu'on apprend apprend à nos téléspectateurs, c'est pas seulement un plat cuisiné et tout, mais pourquoi ressortir l'originalité du plat? C'est ce qui est bien, c'est ce qui est également original. Je reprends le même mot parce que original, il y a pas un autre mot similaire ou un adjectif. Original, c'est <laughs> original. Voilà, bu original di cere. Donc pur wala bi di ah, <laughs> On retrouve euh, les prévisions météorologiques, le temps à Dakar et dans le reste du monde avant de retrouver mes rubriques et nos invités pour la suite de ce Good Morning. À tout de suite. 54 minutes de retour sur le plateau, de retour avec nos invités, de retour avec nos rubricards habituels, dont Khadija Si et l'autre, qui nous vient tous les mercredis. Lui, c'est Maodo Awandiaï. Nous avions euh, scellé le mariage mercredi passé. Aujourd'hui, pour jour. Comment allez-vous, les deux tourtereaux Je le lendemain. Et pourquoi Elle savait pas in cuisiner. Incompatibilité d'humeur. D'humeur. Voilà, c'est ça. Non, sans blague. Ah, ben c'est ça, c'est dommage. man ma foogoon Ben, il y avait ça aussi, mais elle, elle, elle est insupportable en plus. Mais, et pourquoi tu ne pouvais pas te, te relayer euh, vers Sophie Pour qu'elle puisse. Sophie, yow lu tax jànguloo kii balaa muy dem sëy ay petit plat. looloo tax ñu dàq ko. Moi, je vais faire comme les Ivoiriens. Est-ce que moi, mm. là, je suis femme à, à, à, à qui on va divorcer là Ah, en tout cas, il a été le premier à ouvrir sa bouche pour dire que voilà quoi. Divorcer, divorcer. Ça, c'est divorcer devant l'écran. Tu me connais, non Tu <laughs> me connais. On en reparle après. Qui a divorcé de qui C'est lui ben, ou je on en reparle après, ça veut tout dire. Je l'ai répudié, mais elle ne veut pas rentrer chez elle. Peut-être qu'il fait trop bon chez Et moi. Et il me garde chez lui. En plus. Ah. Où est le problème ah, de toute façon, là. C'est qui, qui, a gâté, C'est qui qui a ajouté poudre à la sauce même ah, Pour retenir l'autre. <laughs> ah, garçon là fait trop de problèmes. Hein. Garçon là sort tout le temps. Garçon là n'est jamais à la maison. Et puis ah. garçon, la fille, fille beaucoup de filles la courent derrière lui. Et ah, femme là aussi. ne sait pas cuisiner, femme là ne sait sa langue aussi. Ah bon? Donc il y a problème. Ça me fait pas là. Ah, les filles, elles m'appellent tout le temps, elles m'appellent, elles m'appellent pour demander garçon. Je vais pas tenir ma bouche hein. <laughs> Pourtant c'est un couple qui va bien, c'est bien hein, les disputes. Ça rajoute un peu de peps à la sauce. Non, on s'aime là. Mmh. <laughs> <laughs> Attends, no comment. Il est resté, il est resté bouche bée. Attention à ce que tu dis, Khadija. Nous sommes à la télé et puis nous sommes en direct. Voilà. D'accord? Il reste les archives maintenant, d'accord? Faut faire très attention à ce que tu dis. Bon, euh, c'est vrai, nous gardons le sourire pour euh, dalal suñu invité bu njëkk. Salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax. maaleykum salaam maa ngi leen di fay. ba yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. pour parler de culture. Khadija moom mooy Jamil Diab mhm. nekk artiste artiste bi nga xamante ne fii nga juddu Sénégal mhm. même bu fekkante ne da ngay nekk extérieur di fa mhm. def musique bu ñu nee Jamil Diab ci wàllu musique fii ci Sénégal euh, fan la jóge ci yow da di li nga xamante ni seen kër da ngeen ko yàgg def jëlee ko ci say maam wala it da li nga xamante ni aussi passion la ci yow nga dem jàngi ko ba di ko def may nuyu waa kër gi yëpp di leen nuyu di kontaan ci dal bi ngeen ma dalal di nuyu borom kër gi El Hadj Ndiaye ak soxna Marème Ndiaye nga xam ni yàgg na ma ak ñoom yàgg naa toog ak ñoom comme ni ma toog ak yéen nii ñu yàgg ma xelal sax yàgg ma jox ay idée xëy na yàlla moo ko tuddul mais ñoom waroon nañu def si man ay production yu bëri ah ma leen di nuyu bu baax di am mbégte ñëw seen kër di wax ah, ñi nga xam ne ñoo tàmmu DSTV di ko seetaan have a nice day good breakfast everybody parce que émission la boo xam ne neex na ma trop man nag euh, Jamil caam laa tudd euh, sama papa ak sama yaay sama maam yëpp waalo waalo lañ euh, Dakar laa juddoo mais sama papa boo xam ne mook sama papa ñu bokk benn papa Yamar Thiam moo jëkk tëgg tama si Sarano ba retraité Mamane Fall mook sama yaay ñu bokk ndey ak baay moo jëkk tëgg tama si musique moderne ndomb wan star band kase ba ndomb suma sama grand frère Assane Thiam ñëw ak Youssou Ndour depuis Kassé ba Super Étoile ba Étoile mais man dama ñëw indi leneen parce que dakaar laa commencé fii laa jànge tama ba mën ko mais dama dem Gambie ma nekk euh, am 17 ans 18 ans bi may dem Gambie boobu bi aar bi deewoon na mhm. ay mag rek laa fa fekk ma ñëw di ko ñafe loolu mi ngi nekkoon quatre vingt quatre vingt laa fa jëkk dem ak benn orchestre mais bi ma fay demaat quatre laa fa dem ak benn groupe quatre vingt six ma bàyyi créé sama groupe bopp ah ba Gambie yëpp xam ma amul benn groupe buy mag buy jógee Sénégal ñëw Gambie te du ma bokk ak yow concert commencé par Youssou Ndour yàlla may ma fa succès bu macha allah alhamdulilah loolu moo waral ma daan tëgg ay soirées sénégalais depuis quatre ba 92 91 pardon sama première premier voyage navia fële ci Europe muy Suède Norvège ak Danemark ma def fa sama premier album 92 muy Dégé ji d'ailleurs album boobu nit ñi dañ si war a taxaw di ci waxtaan. parce que dafa am lu mu lu mu ëmb. Dégé ji cassette la. Mhm. wax leen ci Dégé ji sooy maafe da ngay dégé. Mhm. su loxo mbalax da ngay dégé. <laughs> ji Dégé ji morceau boobu. amoon na morceau yu bëre mais morse xam nga cassette bu ne daal morceau boo xam ne mooy nekk. mooy waaw donc euh, cassette boobu avant muy enregistré morceau yooyu génne naa ko cinq 87 ba 91. ba non non non maanaam album boobu noonu morceau yëpp parce que huit titres la. ah d'accord maanaam cinq ans yi <laughs> morceau yi ma enregistré. Uh-huh. joué ko cinq ans avant ma koy enregistré li tax ma enregistré ko tamit maa ngi ciy félicité koo xam di ko ñaanal parce que nekkatu fi muy Ousseynou Lawane Ndiaye gaañu na artiste bu mag gambien la parce que dafa ñëw sama benn soirée ba ba Stockholm la Suède bi soirée bi jeexee mu ñëw fi ma dal si ëllëg sa mun ma rakk balaa ngay ñibbi Afrique li ma dégg nga joué ko na nga ko enregistré nan la tudd nga ne Ousseynou Lawane Ndiaye na kon gelawaat seen batteur après da doon way bon artiste bu mag la ah Sénégal gi melamaan yëpp xam nañ mun ma na nga ko enregistré parce que li ngay def nii moom la artistes yi mag yëpp di def yow percussion kese la mais soo koy déglu di setaan day mel ne lépp ngi ci biir effectivement parce que balaa may dem voyage boobu Youssou Ndour si boppam woo na ma ñu toog comme ni ma toogee yoon ni mun ma rakk damaa bëgg ñu liggéey parce que groupe bi nga yor dama bëgg fu muy jouer spectacle yu am maanaa yi nga may defal première partie parce que li nga yor dafa dafa dafa doy pour ñu liggéey ci loolu maanaam ma koy defal ay première partie mhm. parce que Youssou si mosaan ñëw ma lay wax ni entre 88 ma lay wax ni ba lu ko romb sax parce que maa ngi jógee Gambie 95 su ñëwee jeu soirée samedi dimanche bi ak kooku fa mën a indi man damay bokk si concert parce que Youssou du jeu tant lëndëmul pour jeu de lumière yeeg affaire yooyu mhm. donc entre 6 heures ba 7 heures man maay jeu ak sama groupe public bi donc boobu mooy sama premier album muy Dégé ji Dégé ji dafa am histoire bu rëy. Mhm. parce que dafa ñëw Gambie toj Gambie parce que lu siiw Gambie day siiw Sénégal. Mhm. benn waaye bu ñuy wax Moussa Dieng daan liggéey ak Youssou Ndour daal di may contacter pour ni la dafa bëgg masteru cassette bi pour def duplication pour Sénégal après moom mu def duplication pour Sénégal jox ko Talla Diagne mu koy jaay. cassette bi nag tas si Ndakaaru siiw vraiment nit ñi bëgg ko loolu moo tax. sama grand frère Assane jénnee maam moo tax Coombaay ñëw 93 jénnee rimbax papax. waaw cassette boobu mën naa moo indi beneen musique ci Sénégal fii tey mm-hmm, mm-hmm. cassette boobu la parce que avant Youssou Ndour fu nekkoon Thione Seck Baaba Maal Ismaïla Lo ainsi mais bi bi Jamil Thiam ñëwee dafa indi beneen musique boo xam ne tey moo fi nekk tey. mais est-ce que mën nga ñu jëmalaat tuuti ci dege ji. Khadija li mu wax nii yàgg na de. non dégg ji euh, xam nga damay commencé man maay def début bi quoi dégg ji gars yi ñëw dégg ji leen si dégg ji. wërëg dër gi tëj gi. sooy maa fi da ngay dégg wërëg dër gi tëj gi tëj. dégg ji tëj gi sa loxo mbalax da ngay dégg tërëg gi tëj gi tëj ji dégg ji laaxu natri da ngay dégg laaxu natri ap dégg ji dégg ji dégg ji dégg ji dégg ji ah ji man am naa ci am naa ci benn bref mais man li ma jaaxal mooy la moo tax yow nga nekk Sénégalais nga tudd sa papa yow nga dem euh, étendre ses ba euh, Gambie di fa amal sa liggéey wax nga léegi ne album bi mu génnee euh, Gambie la génn ñu dupliqué woo fii ci Sénégal. je pense que contraire moo doon logique. Mm-hmm. non boobu siiw na Gambie tamit mais comme li ma la wax rek li siiw. si Sénégal day siiw Gambie lu siiw Gambie day siiw Dakar voilà loolu laa bëgg a laaj xam nga instant boobu nga door Sénégal doo ubbeeku tamit dama fa am ay yaay wala da nga amoon mag yoo xam ne moo am succès bi fii déjà fallait que nga dem feneen genre gàddaay yooyu bon man pour man dama ko man tukki nattu laa koy jàppee quoi parce que mhm. man li ma yóbbu Gambie benn orchestre la woon mais si biir orchestre bi dañ daan jouer jigéen ñi nga xam ne dañuy ñëw si soirée yi dimi man chef ma major laa ba fi may waxee yow nii. Mhm. maanaam mariage wala ngénte wala. fest mag man groupe percussion laa yor. Mhm. même fële en Europe. amul dëkk bu ma deful Europe ay yoonu yoonu yoonu yoon. Espagne la base depuis 2002. Mhm. fa laa am résidence mais damay dem si dëkk yëpp. yow daal sa réew waxoo ci dara maanaam si je comprends bien. non parce que loolu pour man ba léegi natt rek. Hmm. waaw parce que li tax man may. sama sama carrière boo xoolee léegi dégg ji fàtte sax yow man xamoon naa la. maa ngi fàttaliku bu baax a baax non dama ñëwaat 94. mais il a fallu que ma tuuti 92 mooy dégg dama ñëwaat ak hmm. Jarana Mbaye. <laughs> boobu it maa ngi koy fàttali. jara naa mbay boobu tamit def na fi def na fi affaire man xam naa ni su ma toogee Sénégal. Ah, macha allah dinaa fi def dara. yi wax ni xam nañ ko man yi wax ni xam naa ko. Ah. donc jara mu ngi si même cassette euh, kii bi mu leen jox ni euh, parce que 2010 def naa ko remix. parce que man. dama def 92 album xaaral ñu may ñu ci ñu seetaan ak parce que man il faut ma fàttali leen. laay sarax ma ci <laughs> <laughs> ñu moom payee ko sonaloon. maa la mu doon <laughs> koy may. extrait wu ma baay mais Janaba mbay bi dinañ dinañ ci ñëwaat juste après parce que ñu mel ni Khadija yi nga xam ne fàttalikuwuñu dege ji ak Janaba Mbaye franchement Khadija. man <laughs> dama choqué ah, <laughs> alors yow ñu nekk xam naa <laughs> la. mu nekk frère wu euh, tey jii nii moom gis nañ ko auprès de Youssou Ndour mu am lu. am sol loo xam ne mu ngi koy def nag ci tama. noonu ni mu mel ci tama noonu nga garabu kaani moom. lépp la. lépp la lépp la. kon ni ni ni yaat ma may ma ni bi moom benn la. benn la kon yaat ma ni mu mel Assane ni mu mel noonu nga ma doom la ma dama lay def nii nii laa koy def. lu tax waaw doom la ah, mais ba tey tamit ci kaani gi la bokk rek ni. muy yaat ma muy sam caam muy Adama Thiam muy euh, euh, Aziz Anne suñu jarbaat muy Massar suñu jarbaat ñooñu ñëpp ay xale nañ man boo ne Assane dama naan la parce que suma grand la mhm. boo ne Yamar Thiam ma ni tekk déglu la bi nekkoon étoile mhm. wala nga ni Pape Thiam ñooñu dama lay déglu mais booy ko surtout dama que xam nga euh, damay wax toujours ni Assane kooku dañ ko war a defal lu rëy parce que gis nga tey mhm. tey waxuma sax ku dul waalo waalo mais kuy tëgg tama rek fii lox ñoom ñëpp loxo waalo waale nañ ñor même nga dëkk njaamu rek nga dëkk fuutaak foo mën a dëkk nekk fii di tëgg tama ñi fi tëgg tama ñëpp boo dégloo galan yi rek ah benn benn benn direction rek la lay jox bu dee xam nga bu dee xam nga xam nga galan mhm. te loolu lépp li ko fi indi mooy Assane à part Mané Fall asan moo ñëw nekk si Youssou Ndour Youssou Ndour def mbalax Assane di tëgg loo xam ne macha allah léegi ñun ñu mujj ñëw ñëpp il fallait ñu ko ci moom mais du tee nag yow nga am loo xam ni yow la mhm. man nag li ma uteeg ñu bari mooy loolu ñoom suñu biir famille xam nañ loolu parce que man dama ñëw indi lu bees parce que mën a tëgg wala mën a woy wala mën a fecc euh, dafa am loo xam ne moom moo ko moo koy yóbbu mooy création foofu nga créer te man macha allah côté boobu dama ci macha allah alhamdulilah. macha allah man damay damay créer man. alors extrait wu Dianana Ndoye bi euh, am nañ ko nañu ko ñu seetaan ko. bu ko defee ñu mën a dellusiwaat. sama yaay bul ma tala jaay bànneexu dem c'est après bu ñu tegee clip bi la Khadija di soog a fa ne ah, ah, waaw waaw waaw mais ça c'était en 2010 mais version originale bi. waaw non original bi maa ngi ko def 94. waaw waaw boobu nag 94 boobu. waaw 94 la la la ko jëkk joué après def remix. est yu gën a garaaw daa ne léegi booy yi dab nañ la de. ñay coppet ñoom Babacar Seck ak consort. non gën a garaaw non xam hmm. nga euh, euh, nit booy def dara mu baax il faut am ñu ñëw parce que man bi may def sama premier album xam nga amul woon Sénégal. bu mu ñëwee fi gars yi déglu ko ne ah percussionniste yi ah. yàlla ñun war ñeen rek si mbalaxal gars yi. après ñu commencé di créer ñii di créer rythme wut ku leen wayal ci kaw parce que am na ñoo xam ne mën nañ tëgg mais mënuñu wax mënuñu way. Mhm. dañuy tëgg rek am ku leen wayal. boo xoolee boo déglu kaset bi bari fi ah tam bi nga waroon a andi. vraiment. suba teel bi nii. waay kon kon kon kon mais loolu loolu garaaw loolu dinañ si ñëwaat. non non yow kay yow kay def nga que bii bi daw ba léegi te Khadija nee na nee na nee na kii yam kii yam tama neen la bëgg a maye. nu mu tudd si an nañu koy woowee sax yooyu ñoga na lu kii bi tama la bëgg a maye tama. dama ne. jàkkaarloo xale yi léegi jàkkaarloo gis Laye Sarr mu dem. waaw waaw donc man yàlla dafa mën a mën a tëgg Euh, mais pas mën a tëgg rek dégg wax naa la ko sànq am na ñoo xam ne mën nañ tëgg mais mënuñu créer rythme maanaam nga mën tëgg mais doo mën a créer dara mais di nga mën tëgg. Mhm. loolu dafa bare sax si jamono bi ñu toll nii. ñu mel ni ñi nga xam ne am baat mais mënuñu créer son boo xam ne seen son bopp la mënuñu def benn texte boo xam ne ñoom. Mhm. du ma wax rek lépp parce que yaa ngi ci ba tey mais xale yu jug léegi ñoom it di def li ngay def noo gisee seen kii ma xam ñu ngi ko yàq wala ñu ngi ci taxaw. si benn côté baax na mais si benn côté baaxul. Mhm. si benn côté baax na mooy nit ki buy góorgóorlu da nga koy encouragé. Mhm. si beneen côté mooy bari na si yoo xam ne man nu ma ko dégloo day mel ni liggéeyu yàkkamti. wala nga defe ko noo xam ni tey suñ la wowoon si benn place pour nga def loolu doo def la même chose. Mhm. parce que gis nga studio dafa garaaw. Ah, dañuy arrangé rek. man sama live yëpp mën naa wax ne depuis quatre vingt euh, man maa ngi bàyyi orchestre musique orchestre maa ngi musique euh, moderne maa ngi ko bàyyi quatre vingt six. 87 ba 86 ba 87 aw ma groupe. dañ ma doon war a may dem di tëgg man kenn ak suma tama ci xew yi Gambie mais après 87 nag laa commencé créer sama groupe bopp. yooyu tamit yàgg na de. waaw 87 laa am sama groupe bopp di gérer si di def ay programme yu rëy Gambie ba si kër Diawara président bi bu fa xew anam maa koy tëgg. yow bu ma la dégloo ci sa wax. Euh, lii nii pionnier nga ci maanaam ci ñu ci jiitu nga bokk mu euh, mel ne la neex lool mais man loolu dafa may xaw a jaaxal ndax euh, clip yi ma gis euh, fecc yi ak ñi yëkkatee tànk noonu dafa xaw a ëpp maanaam mooy de 18 ans la laa bëgg a wax loolee tey ji boo ko xoolee suñu xale yi di ko xoolee c'est exemple bu baax la ci ñoom tëgg gi moom macha allah mais yi muy àndal bu ñu koy wane laa bëgg a wax ñi muy àndal c'est-à-dire fecc bi nga bëgg wax waaw fecc beeg image yu xaw a doy waar yi non mais moom xam nga lu ma lu ma paa boo waxoon rek nee na mu tëgg moom tëgg bu ne am na fecc mais fecc bi boo ko rafetalee mu rafet mhm. mais boo ko ñaawalee yow miy ñaawal yow la yow yaa ñaaw mais <laughs> tëgg bi ñaaw waaw li ma gis léegi ci télé bi du man rek maa ko gis de non non mais fii non clip bi moom amul lu ñaaw hmm. bii ah am na fecc boo ah, xam ne am na sànq dafa seen gisoo kenn séquence xam naa xam naa fa xaw a rek wax ko rek lëmbal bi dara ci parce que moo <laughs> ko def xam na maîtrise la clip bi moom macha allah clip bi moom macha allah booy ci fecc fecc nañ ci fecc naa jigéen ñi tamit boo xool ah, ma jox la benn exemple askanu lawbe bu fàllu ñëw bi ñu def ngeen nañ ko censuré dafa dafa defaraat clip bi tellement dafa xawoon a doy waar mooy bi coppee doon aw noonu rek mhm. donc te yow nee nga affaire yooyu yaa ko fi indi mhm. yaa ko yaa ko njëkkee mhm. kon yow am nga ci responsabilité tey jii bu la yàlla bindalee dina la bindal <laughs> man gëw ma gëw ma bindal bindal bindal moom gëw ma dañuy wax na xam nga xam nga ba ñuy wax loo xam ni hmm. pour defar la eh, loolu lu am solo la parce que métier mu ne des fois day dem ba day bari ay poussière hmm. dafay baax nit ñu taxaw waxtaan si parce que fii si Sénégal boo amee ku mel ne Pape Doudou Ndiaye Roche man wax naa ko ci télévision internationale yi damay tudd trop que sama papa la mook sama papa Yamar ay xarit nañ ba pare moom ci boppam bi may am 17 ans dama ko yàgg foral tama avant may dem Gambie. Mhm. Fadou Ndiaye Rose li ma ko foral tama bu matul 100 tama jóge na ko. daf ma bëggoon ku mel ne Pape Doumbia si réew mi fii xam nga moom defal ay cassette comme ni ah, gars yi yaa koy defal sa bopp. tama maa ngi foral sama bopp ba ko law ba ba xasee te pare na ci maa ngi def lépp. artiste comprendre nga. nga eh, am ko mel ne Pape Doudou Ndiaye ak nu mu def ci réew mi ak bitim réew nu nga xamee ak nu muy liggéey ci wàllu rythme nga xam ni eh, moom boo koy déglu rek wala nga nekk koo xam ne kii am nga am nga oreille musicale baax te nekk tëggkat war nga mën a jàng si ñu mel noonu lu bari bëri bëri. Hmm. kon ko dama ne tey ku def leneen rek yow la neex mais ñi mën ñi mel ne moom ñi ngi fi si tama si sabar si jëmbe si xalam ci kora si lépp loo xam ne instrument traditionnel mais profité ci ci occasion boobu nga wax parce que tey musique traditionnelle booy xool ñi koy def ma xam leen ñu nekk bitim réew daay war nañ leen dolloo njukkal. Mhm. war nañ leen dolloo njukkal baax Sénégal parce que ñooñu ni ñuy liggéey si wàllu intégration maanaam musique Afrique ak ak européen. Mhm. bari na orchestre yi fiy jóge di dem defuñu loolu. defuñu sax genn wàll ñooñu bu ñu ñëwee man bëgg naa yéen ngeen di gëstu gars yi bu ñu fi ñëwee ngeen leen di invité mhm. di waxtaan ak ñoom parce que ñooñu lu ñuy liggéey liggéey bu rëy la même si wàllu tourisme yi ñuy wax nii waaw da ngeen jaay destination Sénégal même tourisme bi da ngay gis koo xam ne que tey par exemple man am ñu mel ni man ci biir Europe yëpp ba Amérique ba fépp nga am lu ma tey comme man maa ngi dëkk dakaar mais damay jékki-jékki ñu woo ma Ndar wala ñu woo ma Kaolack ma dem def fa classe te dama fay fekk cinquante personnes wala trente personnes te ñooñu boo demee boo pare rek dañuy dañ lay laajaale lan mooy Sénégal lu tax tama bi lii ngay leen di Sénégal ak li nekk Sénégal nga am koo xam ne yow doo toog sax gis mais loolu dina tax moom mu dagg bi ñëw Dakar ñëw Sénégal visiter découvrir mhm. may profité si occasion bi ministre bi yore wàllu tourisme wallaay Azim su ma invité woon ñu waxtaan ma jox ko idée boo xam ne bu ko defee minimum dana am vingt pour cent vingt cinq pour cent de plus lu ñu doon am si tourisme. loolu am na solo. am ngi lay dégg. wallaay Azim. Mhm. ah da koy jéem a approché rek wala ñu boole leen nag ñi nga xam ne ñoo ay collaborateur ngeen xool nu ngeen di liggéey parce que comme ni ma la waxee partout Europe maanaam Espagne gi ma nekk rek mën naa la wàññil vingt yoo xam ne ku si ne man leer na ma ni chaque année lu mu gàtt gàtt mën na mobiliser cent personnes indi fii mhm. minimum cent personnes imagine nga am loolu nag dëkk bu ne mhm. Allemagne France euh, Hollande Belgique Italie Portugal Angleterre Suède Norvège dëkk bu ne amul dëkk booy tudd te artistes yu fa nekk yëpp samay xarit nañu ñii maa leen fa yóbbu sax far ñu nekk ay artistes yoo xam ne vraiment ñu ngi liggéey liggéey bu rëy. tey jii euh, bu ñu weesoo foofu yàgg nga fi def liggéey bu am solo nit ñi ràññee la mais jamono jii di nga ñëwaat ñëw nga ba pare yaa ngi fi mais lan ngay waajalal euh, sénégalais yi nga xamante ne yàgg nañu fecc ci say ci say musique. bon comme bi ma mujjee def maa ngi ko def 2010 parce que man euh, maa ngi jénn 92 album dégg ji 94 ma jénn Jarana Mbay jénnuma album ba 2004 ma def benn album mais boobu si Espagne rek nañ ko jaay maa ngi ko tudde Cogelo si baatu espagnol mooy jëlal ba 2010 ma soo ko def bi bi ngay gis nii bi mu ngi tudd Gan album bi Gan la tudd am na six titres donc fi mu nekk nii man pare naa dafa am rek lu may xaar loo xam ne parce que comme lu ma wax sànq rek xam nga liggéey bu ne boo koy def nga xam ne def nga produit defaat ko defaat ko amatul yàkkamti te ñun nu ñu liggéeyee man mën naa koo sax ni may tàmm di liggéeyee ba doy fële la man damay xaar ba été bi di waaj ñëw am na groupe boo xam ne damay yi nga ne moom nañu day nekk lu bees suñu public bi ñu miin di seetaan ñun noonu na ñuy liggéey fële te bari na artistes yu mel ni man te ma nekk Europe noonu la ñuy liggéeyee mais nekkul ni ay cassette ñun dañuy liggéey si spectacle maanaam spectacle am nañu spectacle boo xam ne bii 2STV moo koy def dañ koy waajal indi loo xam ne bu ñu ñëwee 2STV ak ñi koy saan dañuy bég dañuy kontaan. Ah, loolu xanaa doo ko ah, loolu kay des na si yéen yéenay bañ loolu moom yéenay bañ man moom euh, macha allah alhamdulilah euh, El Hadj Ndiaye wax naa leen ko si commencement bi sama grand la te xam naa ni bu ma seetaan dañu waay waa ji fu mu nekkoon. dem Ah, dina wax loolu parce que la grand la dama toog ak moom ñu du benn du ñaar Maram Ndiaye toog nañ ñu du benn du ñaar ñu waxtaan ci wàllu man sama production yàlla moo ko tuddul nag mais gëm naa ni man ak ñoom mën nañ def loo xam ne incha allah dina nekk lu rëy daal man gëm naa loolu. xam nga yéen parce que ay nit ñu baax nañ. Mm-hmm. vas-y vas-y xam nga yéen. Ah. baaxu ci réew xam nga lu tax ma wax ko. Mm-hmm. parce que danga nga ne euh, musique bii ngay def euh, maanaam ci ñu si jiitu nga ci. Euh, dëgg la tànk mi ngi doon yam ci yéen amul problème mhm. mais euh, dañoo seetlu tamit ne dafa dafa law ba ci yeneen waykat yi mhm. ñoom Youssou Madjiguène ñoom ñeneen ñi way daal maanaam bu njëkk dañ daan jàngale di wax téere mais léegi kenn waxatu ci luy jariñ wax yu wax yu mbëggeel taasu tëli tëli rek loolu boo ko gisee tey jii li ma la waxoon sànq la rek bu ñu bindee dañ leen bindal am ngeen ci wàll non dëgg xam nga mooy li ma rek xam nga man créé wu ma taasu Sénégal créé wu ma way wu ma tëgg Sénégal man dafa am lu ma indi lu bees loo xam ne amul woon Sénégal. ñëpp fekk la ci. li ma indi lu bees loo xam ne amul woon Sénégal mooy amul woon benn taas ko si jamono boobu di xalaat naan damay dem enregistré cassette kenn xalaatu ko. Mm-hmm. parce que ci ngénte yeeg xew yi. waaw yow ngeen a faral di mm-hmm. nekk. man yàlla def ma am groupe te li li indi loolu dama joué benn boîte bu ñuy wax Oasis si Banjul am ñu ma fa yóbboon ma joué benn soirée sénégalaise dañuy joué pare rek borom local bi. mu woo ma si bureau ne ma dama bëgg jël contrat nga visé chaque vendredi man ko mun waaw man ko d'accord ñu waxtaan mhm. bi jubóo beneen àjjuma ñu ñëw mu feesaat parce que nag si jamono boobu Gambie ñu bari xam nañ ma nag mhm. te Joo animateur bu mag la ak Pape bu nekkoon rajo Sud mhm. ñoom nag ñoo ma daan ñoo tudd sama tur ci soirée ak yenn ak yenn fête yi ñu ma daan invité ba ñu publicé nag damay joué foofu ñu bari nag di ñëw affaire bi fees man nag si laa toog ak nag sama group bi ma leen hey buñ dem fee rek tëgg ay ceebu jën ay ñaari gorong ay lëmbal yooyu rythme cosaan la kenn moomu ko nañ leen créer lu bees. commencé répéter moo tax man sama premier album foog mu dal parce que morceaux yooyu joué naa ko cinq ans avant ma koy enregistré. dama ko togg lu yàgg dama ko yàgg dama ko doon joué chaque soirée dama ko doon joué. moo tax bañ ko enregistré rek fekk boobu ñor na gars yi miin nañ ko affaire bi nakk na ci nakk na ci temps. Hmm. mais comme li nga wax rek xam nga fecc moom. Euh, yow mi fecc rek yaa mën a rafetal. Mhm. du tëgg ba tax nga fecc lu ñaaw de man gëwuma loolu yow mi fecc yaa fecc lu ñaaw. Mhm. parce que tëgg moom galan bi moom. Euh, mais da nga ne da ne sànq euh, tëgg bu nekk am na feccam. waaw maanaam kon liñ tëgg. tey bu jën am na feccam. Mhm. ñaari gorong am na feccam. baara mbay am na feccam. dagañ yooyu am na feccam. nuroowuñ fecc yi nuróowuñ mais ça veut dire fecc bi dafay ñaaw non non non fecc bi moom nuróowul. fekk nag yéen tëggkatu tama yi dama seetlu ne da ngeen a kii lool bu ngeen di tëgg di topp xale jigéen ci kër moom tama moom loolu moom ko def dañoo wax <laughs> <laughs> wax ni euh, nga ñun waalwaale ñun ñoo indi dëru mbëtt si tama ki ne ci clip bu Kumba Gawlo boobu noonu bin bin sam mooy sam cam mooy suñu rakk ah, boobu man mooy suñu rakk mooy sam cam actuellement moom moo nekk si waal yi mhm. euh, dugal nga ma foo xam ne sax dinaa fa ñëw parce que Waly papaam coon sama grand la musigu coon bu amee tama man maa tax. dafa seddoon moom moom yu man maa non man maa tax musigu am tama xam nga tax. Mhm. bi ma jógee Gambie 95 dama ñëw fii. loolu méngoo naa jamonoy Macu de mooy bu xumboon. non avant Macu bi sax la mhm. defe naa non wala après non avant Macu parce que euh, li ma lay wax nii benn soirée bu amoon Sahel la. booba Moussa Pathé ma nga fa. Mhm. Assane Ndiaye demagul Assane Ndiaye suma grand la Moussa Pathé suma waay la. ma tëgg benn tànn biir Medina di ñibbi maa ngi ànd sama rakk bu ñuy wax ma maane maa koy nuyu moom mi ngi Paris ñu ñëw ba tolloog sayel ndi wël tax maman ne ma grand duñ jaar si sa gars yi fii seetaan leen fekk boobu gars yi def nañ pause xam nga bu njëkk soirée yi dañuy commencé ñu pause deux heures après jëlaat jeu ba quatre heures léegi ma ñëw nag fekk gars noonu si biti ñu may tooñ après monsieur Pat ne ma hey sama waa ji yow xanaa tànn biir nga jógee di ma tooñ noonu non non yéen seen grand bi kay yéen koy géleen rek. dafa pompe bàyyi ma wax ko grand bi man ka xanaa nga wax ko ko rek. grand bi temps yu sedd la daan def. waaw mhm. man ko wax ko ko rek. fekk boobu mi ngi génn kasetu traditionnel boobu béyeeg lu mu yaratu mais en traditionnel mais da ko doon jouer ci orchestre bi moderne. waaw jamono boobu la ko jëndee. mais mais mais soirée boobu da ko da ko doon jouer euh, ak orchestre bi quoi pas pas traditionnel. Mhm, mhm. léegi nag buñ diggee si biir euh, Assane Ndiaye ñëw fekk moo taxaw ni ma boy grand bi nee na boo déggee bay ak lu mu ratu rek ñëwal ci kaw seen mhm. ma ñëw morceau boobu wallaay korog gée nañ ko deux fois <laughs> morceau bi dafa jeex public bi juuxu biis biis biis ñu waat ko yow da nga fa tama kese wala da nga dama tama tama tama ah, tama kese nga def tama laa def loolu mooy première fois boobu deuxième fois bi mooy bu muy def dernier jàppasom si buntu Sahel loolu mi ngi si vidéo yi mu woo ma si morceau tali bi si morceau tali bi la moo boobu wax naa si micro bi tëgg naa tama bi loolu weesoo nag après quelque temps rek laa gis ñuy jël tamakat parce que xam nañ ni tama bi am na place si musique bi. loolu muy ah, lu am solo daal. ñoo ngi yaakaar aussi que dinañ la gën a gisaat di nga gën a yëngalaat doomu aadama yi waaye spectacle yi nga doon amal fële ca bitim réew it mhm. dinañ ko mën a retrouver fii nii ci Sénégal mhm. ñu lay remercier ci ñëw ci fajar bi. Mhm. di la bàyyi nga wax ñu sa dernier mot. maa ngi am kontaan Khady ak euh, monsieur Ndiaye. ak sama jigéen. Philippe ah. Philippe Philippe. Philippe waaw. <laughs> xam nga Gambie nga nekk moo tax xamoo ko. <laughs> non man Gambie dugg naa sax mais moom nen de good morning. Ah, ah. eh Gambie jóge naa fa depuis quatre-vingt-quinze. kii moo nga bi mu ñëwee quatre-vingt-quinze. ba deux mille ba mu ah, léegi mais entre quatre-vingt-quinze ba deux mille tamit liggéey naa fekk Baaba Maal liggéey bu yaatu. Mhm. sur le plan national international Baaba Maal tamit. kon yow ñu bëri bu la gisaatee tey dinañ Baaba Maal liggéey naa moom liggéey bu rëy moom euh, tamit muy ne tamit def lu rëy na neexoon na man sax mhm. euh, euh, maa ngi gërëm bu baax parce que Gambie vraiment fa la fa la ma yàlla ibile fa laa commencé voyager sama trois premiers voyages foofu laa ko defe bi ma dem Suède bi ma dem Norvège bi ma dem Angleterre yëpp boobu maa ngi Gambie bi ma ñëwee fii laa def yeneen voyage ba 2000 ma dem nag ma ne naa dem toog pour gën a yaatal samay mbir nekk Italie def fa deux ans. soog a dem Espagne. Espagne nag actuellement fa la am résidence maa ngi nuyu sama gars yi foofu yëpp ak képp koo xam ne bii rek xam nga ma nga nekk ci biir Europe maa ngi lay nuyu di la wax ni ah maa ngi ñëw séntu leen ma fan yi incha allah senegal nag dama fi ñëwoon parce que fii la sama famille nekk fii la lépp nekk du ma fi gëj nag mais saa yu ma ñëwee xam nga rek boo ñëwee benn weer ñaari weer yaa ngi nekk si ay bagages. mais cette fois-ci bëgg naa maa ngi waajal daal retour boo xam ni damay toog comme li nga wax rek def lu bari fii ba nga xam ni. li ci yow it temps bi ma doon def fële moom laay def fii temps bi may def fii Sénégal ma koy jox waa ñële waaw ñële nañ jël 2 mois rek wala 3 mois 9 mois yi ma def ko Sénégal. maa ngi nekk ci loolu na ma si ñëpp ñaanal nag. en tout cas parce que bëgg naa ko daal. waaw maa ngi leen di gërëm di sant encore une fois El Hadj maa ngi lay mhm. bu baax Mhm. jërëjëf en tout cas dege ji moom mi nga ko bàyyee ba tey fii la nekk ñu ngi ciy suluxu nag di ko kii waaye ci wéy bi moom gëm naa ne yaa ko mën a dekkilaat en tout cas Jamil euh, ñu ngi lay remercier bu baax ci sa ñëw fii et puis ñaanal i projet yi nga xamante ne moom nga taxawal mhm. yàlla jàppale la ci ba mu mën a antu ba nga mën ci am li nga xam ne moom nga bëgg ak tamit sénégalais yi gisaat la revivraat li nga xam ne mooy tama ak li ci dege def nga erreur a andi non bu a indi ndax dafa am lu ma Khadija ak Modou Awa. Ah. tey jii nag yaa ma ko xañ. boo wóorulee rek yow prochain album bi. ah, ah mi ngi noonu son prochain album tamit. mais Khadija ak Modou Awa xanaa ñaari balance nañu. non boobu waroon naa ko kii de waroon naa ko sàcc de. ñaari balance lañu. bu bii nee nee ñaari balance lañu. <laughs> maa la woyal boobu merci beaucoup. <laughs> ñu jàll nag ci suñu euh, transition mu nekk wenn clip du jour ba tey euh, ñu daal di dellusiwaat dem ci suñu cuisine tey euh, spécial. ay akara lañ leen fas yéene defaral bu ñu fàtte yi tamit ne seen i commentaire ci facebook.com slash good morning 2STV yéen a ngi dégg Sophie noonu mu am impression mel ni luy batti boobu mu ngi ci suñu akara bi nga xam ne nañ ko déguster ci kanam tuuti c'est parti pour notre clip du jour avant de recevoir notre deuxième et dernier invité bi bien na lii mooy PBS ko ci ñu tegaat ñu tegaat ko ci Voilà, Back Again, euh, c'est la toute dernière sortie de ce groupe Positive Baxo qui se sont reconstitués il y a juste quelques temps de cela parce qu'ils étaient en carrière solo chacun d'eux. Mais là, ils nous reviennent en force avec cette très très très belle chanson Back Again pour le plaisir de Khadija Si et à nos téléspectateurs qui nous suivent de retour pour euh, la partie euh, culinaire tey nag ñu ñëw ci ay akara comme ni ko Sophie waxee il y a aussi tout un assemblage laitue pour la décoration une sauce rouge moo ko nar accompagner donc euh, tout a été fait ça commence à sentir bon déjà donc là nous passons à l'essentiel Sophie ñu bàyyi la nga expliquer ñu suñu akara yi fan la toll sauce bi moom togg nga ko c'est oignon plus tomate léegi nag lan moo ci des lan ngay fabriquer noonu <laughs> bo nañ ko may deux minutes deux minutes. c'est bon c'est bon. voilà maintenant tu sautes. alors suñu akara bi fan la toll. yow doomu ma bàyyi. suñu pat bi jot nañ ko defar léegi nag lan moo ci toog. ah déjà fii lii pat bi jot nañ ko defar defar nañu aussi sauce bi oignon ak euh, sauce tomate ak. Euh, li nga xam ni mooy herbe yi ma utiliser utiliser naa ail en poudre ak tuuti. Euh, persillade pour relever goût bi pat bi aussi moom laa doon defar depuis tout à moo nekk ni damay sotti ko ci sama bool bi parce que dafa laaj travail moo tax ma def ko ci bool bu mag bi pour ma mën ko travailler voilà gis nga ni fouet bi rek laa jël man fili defar euh, un peu d'eau tiède gos dama bàyyi ma togg defar un peu d'eau ma remuer ko ak moom jël fouet bi def tuuti ay def sel gis nga ni pâte bi dafay jug automatiquement ma teg euh, diwlin de côté pomme de terre yi aussi jot naa ko def à la vapeur ci kanam tuuti dinaa ko découper mook tomate yi def ko benn salaat buy accompagner suñu akara yi des ni fii di juste damay ñëw. tu vas juste nous montrer euh, naka lay mel. Mm-hmm. bu ñu paree nag peut-être ñu bàyyi la nga continuer la reste pour mën a def benn présentation mhm. parce que essentiel bi moo nekk ci li nga xam ne jot nga ko defar utiliser nag fouet mhm. pour euh, mu am tuuti volume ak eau tiède surtout ak eau tiède surtout ñu ni déjà damay def rek 4 pat ko de côté entre temps sama yële di commencé ñor ma découper tomate yi toujours tomate yi firi boo koy bëggee dagg en soo bëggee mu gën a facile ci yow da nga koy dagg en quartier soo paree nga dooree dindi pépins yi automatiquement nii rek laay def. akara yi aussi dañ koy surveiller parce que dafay gaaw a ñor. certainement yaa ngi remuer remuer sa ay pièces. loolu pour mhm. mën la jaay euh, ci kanam euh, akara la waaye weesu nañu jamono akara ñaari juróom. kan mooy jënd akara fi mu toll nii la. <laughs> Euh, sinon bu ko indiwul rek yow bul mhm. jaay. amal sa fulla nag su waa benn juróom laa koy jaay tey kay. te bu mu rëy torop nag na yem jamono ji dafa metti <laughs> akara bu rëy amatul fenn. <laughs> sinon du ma am bénéfice ak gaz beeg huile bi yooyu. day metti ah. jamono ji dafa metti donc boo tax. dafa metti trop dafa dem à la hausse. Mhm. nga ni déjà tomate yi rek laay découper su ma paree aussi dinaa defar benn vinaigrette bu ndaw boo xam ni moom laa koy accompagner mook euh, pomme de terre bi voilà moom déjà nii pare na. alors loolu pour présentation bi la nar a doon. Mhm. Euh, fi mu toll nii suñu akara bi pare na on te laisse un peu de temps. oui nga li ci des. waaw voilà. ñu bàyyi ci kanam tuuti ñu dellu siwaat bu ko defee ñu mën a euh, déguster suñu akara yi may ko temps également mën ko. écouter mu ñor voilà ñor na nii a ah. waaw déjà nii presque ñor na léegi mën naa dindi deux rek pour mu. Oh, euh, d'accord pour wan ñu. waaw ñu xool naka lay mel. parce que pat bi xam nga bokkul ak pâte bi ñu faral di utiliser. da nga ne ko de ñebbe. waaw ñu aromatiser ko jox ko beneen. Euh, beneen mu am beneen kii. voilà. gis nga ni déjà fii di euh, nii lay mel. Mhm. da ngay gis ni automatiquement day gonfler day jël volume parce que tuuti rek laa def. mais dafa desee doore dama koy bàyyi ba ci kanam. ba nga xam ne day jël temps am doore bu baax ñor ba boo koy lekk doo am benn problème parce que ñebbe bi aussi dafa war a ñor. su ñorul da lay andil ay euh, problèmes de digestion. effectivement ouais. et quand on pas après c'est les problèmes ouais. gastriques entre mm -hmm. merci beaucoup Sophie. ñu lire juste euh, quelques messages suñu internautes yi il y a euh, Bassirou Baldé qui dit qu'il peut pas rester une journée sans regarder la 2STV en tout cas bégué à vous et que Dieu vous garde toujours nous sommes au niveau de la diaspora merci à Doudou Gueye que peuvent nous rapporter ces politiciens. c'est avec une, une, euh, <laughs> une question, un point d'interrogation. Euh, bonjour Philippe, je demande à Thierno, est-ce qu'il est parti euh, bon, en fait, je vais reformuler. Est-ce qu'il est au niveau de Réumi euh, parce qu'il faut, en fait, il a écrit très mal. Est-ce que c'est pour affronter, en tout cas, le président Sall, si je comprends bien euh, sa question. Et puis euh, Awassène Salam Thierno, que Dieu vous garde. surtout qu'il continue sur cette voie. Nous l'apprécions beaucoup. Bien de choses à vous. Euh, et puis, il y a un autre message que j'ai lu tout à l'heure qui était vraiment intéressant. Mais voilà, il faut dire à Monsieur Bokoum de rejoindre Monsieur le Président Sall pour développer le Sénégal parce que Idi ne va jamais jamais être président, c'est mieux pour lui. En tout cas, bonne journée à vous. Et bonne journée également à Madame Sow, euh, Mariama euh, Magasuba, à qui je fais un grand coucou ce matin. Je pense à toi. Et puis passe une excellente journée, sans oublier monsieur. Alors, Modou Awa, politique, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de rejoindre le président Sall Est-ce qu'il est déjà à Rewmi Il l'est ou il l'est pas Qui ça, Thierno Oui, c'est la question que se posent les mmh. internautes. Ben, jusqu'à ce matin, il était toujours <laughs> au parti Réumi. Je ne sais qui va arriver au cours de cette émission ou après. Mais d'abord, bonjour à lui. Mm ça s'est fait, ça devait se faire depuis mercredi passé. Mais ça s'est fait aujourd'hui, alhamdoulilah. Ouais, finalement, alhamdoulilah, nous connaissons cette disponibilité parce que aussi, euh, Jotam Berioul, mu ñëw ñëwaat euh, Thierno honorable député Thierno Bocoum ñu ngi lay nuyu di la remercier vraiment ci li nga ñëw wuy suñu invitation ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. bi. Mhm. di rafetlu aussi plateau bi dañ koy suivre souvent di nuyu téléspectatrices ak téléspectateurs yuy seetaan 2STV. Mhm. honorable député moom mooy secrétaire national euh, chargé de la communication et des jeunes bu parti euh, sa Seck di réew mi euh, laataa ñu sori rek jëm nañoo def sa nataal tuuti pour ñi nga xam ne xamuñ la bu baax ñu am luñ jàng tuuti ñu def ci benn portrait léegi dañu ñaan rek waa régie bu fekkee disponible na ñu may ñu ko ñu après waxtaan bi. yar ak teggin mooy li lay njëkk marqué soo xoolee kii di Thierno Bocoum waaye bu mu la nax ndax xel ma rey na te it waxam du jukk ci yanu maanaa kooku mooy àndandoo Idrissa Seck bu yàgg Thierno Bocoum bokk na ci ñu sos parti bii di réew mi mooy kiy jiite kuréelu ndaw ñi di it kiñ ñu dénk communication parti bi li fipploo Thierno bokkum ba waral àndam ba tey ak sa Seck mooy ba ñu jàppee maire bu Thiès ne ko ràpp ci kaso bi boole ci daq ko PDS Thierno porte injustice gëm-gëmam ci politique ak loyautéem envers Idrissa Seck yóbbee ko ñu tëj ko kaso ñaari yoon ci nguurug Abdoulaye Wade xeexam Thierno jagleelu ko rek waa parteem ndax ba yoonu réew mi jàppee Malick Noël Seck ginnaaw ab lettre bu mu jébbaloon njiital conseil constitutionnel Thierno Bocoum fesoon na lool ci bataille de libération jëm ci Malick Noël Seck beneen xew-xew bu Thierno Bocoum wuutewul mooy 23 juin di date bi président Abdoulaye Wade bëggee wooteelu loi lo ñu dippee yell xeex ba ca Cerno ak ñu mel ne moom amal buntu assemblée nationale moo waral dellu ginnaawuk nguuruk Abdoulaye Wade assemblée nationale googu Cerno dellu na fa ci atum 2012 waaye bi yoon daa fekk ñu tabb ko député xeex ba léegi ca biir la koy amalee ak ay prise de position yu tax yeneen ni naataango député ma gën ko sopp moom Cerno Cerno du kuy fowee njàng ndax am na diplôme d'études supérieures en communication mémoire am sax mi ngi ko amal ci i politique fii ci Sénégal des affaires Thierno ñu bëri naruñ ko woon a xam ndax bakkanam bi mu naroon na ñàkk ci atum 2005 ginnaaw ba mu naree làpp loolu tax Thierno jàpp ba léegi ne bés ba mu dundaat bu nekk chance la ci moom chance bu ni mel doomam bii di Vieux amu ko moom mi faatu octobre 2014 ci ay conditions yu niroog ya naroon na yóbbu baayam juróom-ñeenti at ci ginnaaw faatuk doomam jooju di ab métit bu dal ci kaw ku ñëpp fonk tax ba senegal yëpp jug pouvoir comme opposition taxaw mastawu Thierno ak soxnaam Sidi Kumba nga xam ne yëf yaa ngi ko fekk mu ëmb ba diis boobu la métit xajul ci benn nit moo waral Thierno tàmbalee bind di bind ba ab téere juddu ca mu dippee ko un père à l'assaut douleur benn weer ginnaaw génnuk àdduna vieux bokum yàlla mi dara tewul mayaat benn bant Thierno ak Kumba muy jigéen loolu doonaat ngëneel ci Thierno ndax boobaak léegi ñoo ngi koy séenaat ndànk-ndànk muy sóobuwaat ci géew politique gi nga xam ni da ko wanoon ginnaaw ay weer yu bëri seetaan nañ portrait bu pare euh, c' est un peu émouvant parce que aussi dañ ci tudd loo xam ne euh, métit la daloon na ci kaw euh, honorable député ñuy profité tamit ci plateau bi di ko mastawu ba tey ndax dafa ñàkkoon ku sori lool ci moom muy doom moom sax nee na du loo xam ne maanaam une partie de lui moo dem ci génn àdduna doomam jooju waaye loolu dinañ ci ñëw ci deuxième partie bi première partie bi Thierno Bocoum dañuy rafetlu euh, di it euh, sant yàlla bi ñu la gisaatee ci géopolitique yi ndax euh, du maa ko wax mais seede ci yow rafet na ñu bëri am ci yow yaakaar message bi fii la liir léegi wane na ko kooku nee sa xam-xam ak sa mën-mën ci réew mi seddee ko sa Seck gënul nga liggéey président Sall moo doonoon li gën li ma lay njëkk laaj rek mooy lan moo tax nga choisir parti réew mi et non beneen parti. waaw Moustapha maa ngi lay maa ngi lay nuyu encore une fois. di remercier ñu bind ci Facebook bi ak lu ñu wax ci man. Euh, parti réew mi nag dama nekk membre fondateur en fait ñëwuma fekk parti bu taxaw. Mhm. ma ne maa bokk. waaye dañ bañ koy sos dama toog parce que euh, lu waral loolu mooy dama àndaloon ak Idrissa ba ñu jàppee bañ ko jàppee dugal ko ci kaso bi si euh, loo xamante ne dafa wékku ci injustice xam nga yàlla dafa def ci sama cursus. ma jàng finance publique euh, ma dégg président boobu ne woon euh, à l'époque jël naa xaalis jox ko mu ñëwaat ma jox ko ma xam ne loolu mënul nekk ci état nu muy doxee. Mhm. Euh, nga nekk premier ministre doo ordonnateur des dépenses doo administrateur des crédits doo convoyeur d'argent doo entreprise ñu tuumal la si loo xamante ne sa yoon nekku si ma ne loolu su dee politique dem na ba war a mën a toll foofu kii de dañ ko war a jàppale. dañ ko war a jàppale euh, soutenir ko parce que injustice bu toll noonu waruñu ko teg si doomu aadama ak ku mënti doon waaw ah, loolu ba mu amee nag laa commencé ñëw jege ko yàlla dafa def man sama dugg politique dafa commencé si technique maanaam moom avant muy def parti dafa amoon staff technique mm-hmm. boo xamante ne mooy ñu koy jàppale si liggéeyam di nekk ay conseil ak yooyu si loolu laa bokkoon euh, donc ba mu jël décision en novembre 2006 créé réew mi dugal ma ci secretariat national bi secrétariat national bu njëkk bi ma nekk ci secrétaire national adjoint chargé de la communication euh, ba tey euh, maa ngi biir réew mi donc réew mi suñu bébé la ñun ñoo ko ñoo ko ñoo ko tabax moo tax tey ñun réew mi lañ ba pare balaa ñuy wax lu moo tax ñu ñëw ci réew mi. Euh, neuf ans après bi ngeen see parti réew mi ak léegi ma lay laaj rek sa engagement politique fu mu toll ndax gëm-gëm bi nga xam ne moo doxoon nga sos parti bi mi ngi ci yow ba tey ak leader bi nga àndal. waaw bu baax a baax a baax loolu bokk na d'ailleurs si li ma gën a neex euh, parce que man dama bokk ak ñu bëri ñoo xam dañ gëmoon na ne politique euh, du suñu jëmukaay parce que politique am na peut-être nuñ ko féetalee woon nuñ ko melaloon alors satisfaction bu ma si am mooy gëm naa ne ne mun nga def politique au lieu ngay bàyyi politique di imposer wu si sa personne ngay adapté wu si ay contexte mais yow sa bopp ni nga bëgg a mel nga imposer ko si biir politique loolu nag mooy satisfaction bu gën a mag bu ñu am au côté d'Idrissa parce que daf ñuy ñaax pour ñuy am suñu liberté mu ñu joxe suñu point de vue mun a taxaw taxawaayu askan bi donc soo amee leader bu mel noonu mu lay ñaax si loolu te du la si découragé je pense que sa engagement dafay gën a taxaw maintenant position bu mu nekk pouvoir opposition ñi koy mën a gis mooy ñu jël privilège teg ko si kaw conviction mhm. su dee conviction moo tegu si kaw privilège nga nekk pouvoir ak nga nekk opposition yépp benn la l'essentiel mooy li nga gëm nga koy def tous les jours nga am liberté di ko def te loolu fii ñu toll ñu ngi am liberté boobu mhm. ci neuf ans yi nga engagé wu parti euh, réew mi euh, waxuma d'une manière général mais ci biir parti bi doxalinu parti bi wala position yi ak li nga fi ci dund lan moo ci doon li nga xam ne moo la gën a marqué euh, négativement en tant que déception wala lu ni non parti bi moom aw ma si aw ma si déception mais politique li ma li ma gën a li ma gën a xaw metti mooy que ne combat yi ñu peuple bi di am le plus souvent du am njëriñ trop damay joxe exemple rek 23 join damay joxe exemple nit ñu faatu nit ñi ñu tëj wax ngeen ko léegi man bokkoon naa si ñu tëj mhm. euh, am na ñoo xamante ne ne faat nañ seen bakkan loolu yëpp mobilisation boobu yëpp engagement boobu yëpp lu ko waroon mooy mu am une rupture ci doxalin yu bëree bari bëri dama jàpp ne ne combat su amee ba nit ay nit faat si ba ñu toll foo xamante ne gis nañ ne Sénégal bëgg na changement changement bëgg nañu am fu ne su dee nit dafa toog loolu amoon ba nit ñi tax seen bakkan dem si mu def lu raw walla mu def lu méngoo loolu te daanaka ñuy ànd ak moom duñ ko wax wala ñu si bëri tamit noppi mel ni dara mosul am loolu bokk na si lu ma metti c'est-à-dire est-ce que tey combat ñu ngi koy fay ndax nit engagement bu mu am ba mu mun a def ay sacrifice ndax kenn su ñëwee dina considérer loolu pour mën a avancer le Sénégal parce que Sénégal ay jéego la xam nga démocratie bi fii mu toll ay génération génération ñoo ko xeex mhm. du président Macky Sall moo ko indi du opposition réew mi PDS et cetera ñoo ko indi dafa am ñu xeex ñu xeex ñu xeex donc dañu jàpp ne jalon bu ñu posé rek dañu war a tegaat beneen jalon ci kaw ñuy avancer mais soo gisee tey ñuy interdire liberté yi nga war a marche ñu ne la doo marche nga yooyu daal bokk na ci li ma metti te dama jàpp na ne euh, ak yi suñ ko amee dañu war a rek avancer maintenant population yi ñoom ñooy juger ndax yow sa bilan méngoo ak seen bëgg-bëgg ndax war a la falalaat ou pas mais les acquis démocratiques nañ ko teg bañ ko laal. une dernière question la xam bàyyi sama collègue yi euh, wax nga ko léegi réew mi li fi xew dernièrement bari na interdiction marche mi ngi fii dund bu cher bi am na ko def allusion sànq yooyu yëpp mi ngi xew ci réew mi yéen en tant que parti réew mi duñ leen dégg lu bari. sa leader anam euh, lu tax euh, lu waral noppi gu bëri gi parce que tamit dañuy faral di dégg opposition di ŋàññi boobu moo ne opposition PDS laay wax di ŋàññi di critiquer pouvoir di défendre mais yéen parti réew mi nga xam ne tey jii nii ñu bëri jàpp nañ yéen alternative euh, boo xam ne bon je dirais pas crédible commentaire lay doon ci li fi nekk lu waral seen silence bu bu bu kii bi nii. non xam nga ñun dañu préférer nekk ay magum waxoon nañ ko que ay magum xamoon nañ ko xam nga lii yëpp di xew gën koy gis. mbëkk mur la après def ay pansement rek moo fi am ñu naan gis ngeen mbëkk na mur bi moom mu ngi def pansement maanaam da ngay gis politique publique boo xam ne teg nga ko mu am problème nga dellu si waat gis mhm. ngeen bu yàgg ne yoonu yokkute président Macky Sall moom moo toog ak gis ngeen publicité bu ñu def si yoonu yokkute yépp def ko si ay affiche wane ay route yuy dem ñu ne lii daal moo mën a yóbbu Sénégal si kanam le président si boppam moom moo dem ba mbëkk mur bi daal di taxaw ne lii jàpp naa ne mënuñoo yóbbu fu sori bàyyi ko dugg fi leneen. bàyyi loolu duggaat encore fi leneen. mais sa Seck depuis le début la leen wax na ne fii ngeen jëm du yoon bi soo leen xoolee six mois après ba mu jullee tabaski cees wax na un après wax na ne yoon bi ngeen jël baaxul donc moo tax mbir mi doxagul waa su ñu demee ñoom rendre si compte quatre mois après mënuñu constater lu dul conséquence su seen politique. alors que causes yi ñun waxoon nañ ko bu yàgg donc ñun lu ñu préféré mooy am vision ci réew mi soo gisee réew yi développé yëpp tous les pays développés tey mun nañ la wax fii ak ñaata année ndax dinañ am électricité la ñu am ci ndox réserve ndox fu mu toll seen si dee pétrole la réserve pétrole fu mu toll loolu mooy vision réew danga koy yor ci vision ne fii lañ bëgg a jëm lii lañ bëgg a def nii ak nii lañ koy bëgg a def waaye doo jël dara tagg ko yëkkati ko te yow étude bu si war bu wóor bu war sur le terrain defoo ko ba suba nga mbëkk mur bi waaw soo mbëkkee mur nag day am conséquence si askan bi parce que day fekk euh, nga mettre ko en œuvre ba mu am ay conséquence donc nga bëgg si ñëwaat encore loolu day tax toujours ngay delluwaat ginnaaw moo tax euh, réew mi en l'occurrence sa Seck si boppam di leader bi yàgg na alerter si lu bëree bëri bëri tey nag dañuy constater luy xew mais lu ñu jàpp mooy que ne démocratie lañ nekk te benn lenn rek moo mën a tax ñu mën fi jëlee le président de la république Macky sàll mooy carte gëmuñu leneen lu dul loolu démo ay démocrate lañ ñu ngi liggéey ci terrain bi pour que sénégalais yi ñu am suñu confiance pour ñu jëlee fi lu fi nekk parce que jàpp nañ ne alternative rek moo mën a am pour que lii ñu jóge ci parce que ñii war nañ déjà ni euh, fu ñu bëgg a yóbbu réew mi xamuñu ko. Mm-hmm. te gëm ngeen ne yéen si seen ñëwin di ngeen mën a soppi lu bari ci dëkk bi parce que li sondage bi ma gis mooy euh, à travers Facebook euh, iddi nit ñi gëmuñu ko trop comme président. Ah nekkoon na fi temps alternance ak Ablaye Wade génn ñu am fi ay jafe-jafe tey mu ñëw ber parti réewam ngeen nekk fa depuis 9 ans mais sénégalais yi ba tey euh, gëmuñu ne idi mën na nekk mën na def politique nag mais pas mu jiite sénégalais yi parce que nee dafa dictateur. li <laughs> ñu wax ah? non waxuñu loolu rek lu ñuy wax ëpp na loolu bëri na. ah oui waaw si si si lu ñuy wax si moom bëri na te lu si bëri si loolu dara nekku si. xam nga damay rappeler euh, je pense que ñu bëri si yéen fekkee ngeen ko période boo xamante ne wax naa ko léegi bañ ko jàppee tëj ko kaso. parallèlement à ça dañu créer ay journaux yoo xamante ne lenn moo leen taxul jug mooy tilimal deru Idrissa nii la mel nii la def nii la ki xam nga loolu su bëree si bopp nit ñi dafa dem ba am na ñoo xam ne dañ lay wax si Idrissa suba ba guddi di si xuloo di wax loo xamante ne lu ñaaw la fi moom te musuñoo toog ak moom musuñoo jàkkaarloog moom musuñu ko jox loxo waaw li waral loolu mooy dafa am lu ñu fabriqué si moom muy ay tuuma teg ko si deram mais tey soo leen xoolee ñu wër Idrissa du bëgguma cité mais soo leen xoolee ñi ko wër ànd ak moom am naa yaakaar ne ne mënin boobu su ko meloon mun du ñu am lenn lu ñu def ak moom. Hmm. parce que nag du mbirum dépense wala quoi que ce moo tax ñu ànd ak Idrissa donc dañ gëm na ne xeex la nekkoon seen normal ñu tuumal ko si yu bëri c'est normal aussi am ñu ko gëm mais am nañ yaakaar ne tôt ou dinañ découvrir ban genre nit la te ñëpp xam nañ te ba loolu mun nañ si màndu que ne Idrissa Seck man manko du moise que ne sa Seck am na xam-xamu yor réew mi. loolu ñëpp xam nañ ko maintenant lu ñuy wax si dafa distant dafa hautain dafa truc loolu yëpp dara amu si dama yaakaar ni rek ne lu ñu jëloon la teg ko si teram mais am nañu yaakaar ne euh, fu fu loxo jaar yàq loxo mën na fa jaar daal di defar bien que ñoom propagande gouvernementale lañ defoon ba mbir mi toll fii mu toll. un euh, posé naa ko question boobu noonu par rapport li fi di wax léegi liñ koy tuumaal yëpp li ma tontu mooy euh, li ñu koy waxal yëpp yëpp bu fekkoon ne mi ngi ci moom moom day bañ boppam. loolu la ma tontu jour boobu. Euh, waaye Idrissa Seck ñàkkagum na ñaari présidentielle avec en 2012 un score moins important que mu amoon en 2007 euh, moom li mu waxoon yàgg na euh, bis bu amee 63 ans mu war a méngoo ak 2000 lan deux côté yooyu ci lay mujj présenté wu présidentielle tey jii loolu soreetul yéen parti réew mi ndax yéen a ngi xalaat relève bi. non loolu teel na loolu teel na déjà 2022 bu ngay wax rek ñëwagul yàlla nañu si yegg ak waaw mais li ma jàpp mooy tey Idrissa moom mooy alternative lu ñu jàpp mooy moom mooy leader boo xam ne ne gëm nañ ne mun na changer réew mi lu tax ñu gëm ko nag mooy dañu nekk ak moom di liggéey ak moom xam-xam-xamam xam vision xam julluteem xam respecté engagement am xam na ne kii su toogee fi bopp réew mi mun na am lu mu changer si réew mi loolu gëm-gëm la mm-hmm. mais xam nga ñun obnubilé wuñu si ay position de pouvoir wax naa la ko sànq li am solo te la ñu gëm ne moo am solo mooy nga nekk ci réew di liggéeyal sa réew ci fi nga nekk parce que opposition dafay liggéeyal réew pouvoir dafay liggéeyal réew donc amuñu obsession ci loolu mais lu ñu gëm mooy Idrissa su nekkee ci pouvoir dina am jumtukaay yuy mun a tax mbëbët bu mu am ci askan bi mu def ko te loolu dafa am équipe bu koy accompagner pour ça te loolu moo tax ñu ànd ak moom te fas yéene nag ànd moom Aïcha alors euh, fi mu toll sànq yéen a koy wax gis nañ ni que lu bëri bu xewee ci réew mi yéen waa réew mi pour ngeen yëngu ci sax wala pour ngeen àddu ci bëriwul ndax dafa fekk ni que jamono ji yéen a ngi pare lii ñëpp di pare muy 2017 ndax yéen a ngi ci terrain bi ànd ak noppi di def seeni jéego di xaar bés bu mag bi rek euh, yéen it ngeen taxaw. bu baax a baax ñu ngi ñu ngi pare bu baax euh, sénégalais yi aussi xam nañu ñu ngi pare xam nga noppi taxawul nit ñi xam na ne. ñun dañuy incha allah su boobaa dinañ bokk waaw donc moo tax sénégal yi tous les jours ñu ngi ñëw di di dugg si si réew mi di bëgg a xam réew di gën a di gën a comprendre lu bëri donc loolu ñu ngi si mais noppi bi aussi dama ko bëgg a relativiser parce que euh, c'est vrai que Idrissa lañ am habitude di dégg mais. de tout tout le temps si question yu bëri gis ngeen ni ñu ko wër ñoo xamante ne ne ñu ngi am nañ ay responsabilité si parti bi ñu ngi joxe seen point de vue ñu ngi engagé wu ñu ngi ñu ngi kii donc parti bi si boppam noppiwul c'est vrai que Idrissa si yenn cas yi bëriwul si di si wax parce que dañ jàpp na ne waxul leader dafa war a doon wax bu am njëriñ waaw parce que loo xam ne waxoon nga ko ba mu am ñëwaat naa maa ngi nii waxoon naa ko man maa ko waxoon amul njëriñ wut ay ngóora la te loolu soxlawuñ ko lu ñu soxla mooy sénégalais yi ku gisoon démb ne lii lay mujjee tey mu firnde na nii la mujjee kooku war naa bàyyi xel parce que kooku am na vision buy mën a tax réew mi jëm kanam. alors euh, sànq am na kenn ku ne ndax doo dem APR pour mën a liggéeyal réew mi waaye it euh, gis naa te ci suba bi may def revue des titres ñu naan euh, am na ñenn ñu nekk ci APR idée ngi leen di jël yóbbu leen ci ñoom xanaa échange ngeen di def. <laughs> échange man <laughs> non échange échange amul. Euh, non xam nga de plus en plus rek je pense que même ñuy jugee ñu jugee APR gisatuñ si seen bopp dañu gis ne alternative bi Idrissa secle la euh, loolu moo ci dal xel c'est-à-dire que tey sénégalais yi de plus en plus contrairement ak sama xarit lu mu lu mu gis ci Facebook bi <laughs> de plus en plus soo xalaatee alternative da ngay xalaat ne Idrissa war na ko mën a doon moo tax ñoom suñu quitté parce que gisuñu fa. vraiment loo xamante ne ne moo dal seen xel dañuy jàpp ne ne suñ ñëwee si Idrissa mbir mi dina changer te loolu na dafay jëm kanam chaque fois on reçoit des demandes comme ça macha allah. Thierno Bocoum en. mais dem APR moom bu moom xalaatu ko dañuy réew mi comme ça bu ñu jëlee réew mi ñu arrêt du bus ñu peint ko naka. orange orange waaw orange xew. honorable député Thierno Bocoum lu metti di tiis dal sa kaw muy génnuk àdduna sa doom looloo waral sax génnub livre bi di un père à l'assaut de la douleur waaye euh, li ma ci njëkk a ci livre bi mooy euh, bi nga yëgee disparition sa doom ngay dem euh, Thiès pour constater ji ko da nga ne da nga woo téléphone ab Mbow Abdou Mbow bokk leen parti Idrissa Seck ñaanu ma ko yàlla ba doomam disparaître du woo Macky Sall yow nga woo Abdou Mbow loolu lu muy wane que ne dañuy am beneen génération d'hommes politiques boo xam ne en dehors des divergences euh, yi ñu mën a am point de vue politique ay frères lañ ñu suudee wala loolu geste boobu lan lay lan lan lay wane. waaw xam nga ba ma ba ma guddi googu ba ma waxee sama doom réer na euh, ba may jugee Dakar di dem Thiès képp ku sama xel dal ne jàpp ne war nga mën a déjà commencer recherche yi à Thiès avant le temps que may ñëw parce que 70 kilomètres laa waroon mhm. jour boobu maa dawal donc euh, mun naa wax ne dama amoon envie lem lem tali bi yegg. Mhm. waa donc nu ma doon dawalee laa doon woote eh, Abdou dumba bokk na si samay xarit yu nekk cees yoo xamante ne ne su ma leen waxee loolu xam naa ne dinañ jug taxaw si donc relation yooyu la ñu am muy relation wu xarit loolu aussi yàlla moo koy def ça n'a voir avec la politique eh, ak aussi ñeneen ay responsable partie yu ma woo et cetera mais moom rek laa si jot parce que guddi la woon moom laa si jot mu ne ma noo nekkul Thiès mu ngi Dakar. Mhm. donc voilà noonu la. sa leader Idrissa Seck ak manque d'humanisme bi ñu koy tuumaal yépp nee nga dafa ñëw ak ay béquilles maanaam tànk dañ ko plâtré woon. Euh, loolu tamit euh, di wane ne euh, xëy na lu bëri ñu bëri li ñuy xalaat ci nit ñi. ci ci moom amul wala tamit mu nekkoon benn genre euh, marketing boo xam ne bu ñëwee noonu nit daan danañ ne kii liñ koy tuumaal euh, nekkul ci moom waaye loolu benn parenthèse la rek. Euh, waaw mais balaa ngay jàll ci parenthèse <laughs> boobu. Idrissa Seck bu muy ñëw bu muy ñëw di ma di di ba muy ñëw si guddi gi la ñëw jour boobu si guddi ba muy ñëw bëggul sax kenn gis ko dafa ñëw kër ga ñëw seet si njaboot gi seet si sama soxna seet si sama yaay et tout ba muy ñëw dafa yor ñaari beeke ndax tànk bi dafa dammoon. Mm-hmm. waaw donc loolu xaaruma ko woon sax parce que. waaw wax nga ko ba mu réeree noppiwul di woote pour xam fu mu toll nu mu demee nelawul noppaluwul ndax ndax mbir mi. donc xamoon naa ne dafa damm xamoon naa ne mënul déplacé wu mais xalaatuma woon sax ne parce que déjà sentiroon naa ne mbir mi metti woon na ko. Mhm. te te vraiment soutenir na ma si. xalaatuma woon sax ne dina jël beeke yooyu ñëw ba su ba suñu kër donc guddi la fa ñëw ba mu ñëwee famille ba rest restreinte rek la fa fekk. donc defu ko pour ngisteel defu ko pour dara relation bu ñu am man ak moom la. yàlla def euh, vieux Barky Bokum euh, génn àdduna octobre 2014 bu baax léegi weer yaa ngi jàll euh, mu doonoon lu metti lool ci yow ba taxoon nga raar nit ñi tegatuñ la bët fenn. Mm-hmm. xanaa communication mu doon amal ak ay say xarit ci Facebook tey ji ñett juróom benn wala juróom ñaari weer après ndax vous avez réussi à faire le deuil. oui al mun naa wax na ne ba ma mbir mi dalee. Euh, dama ne wax naa ko ci livre bi d'ailleurs que ne passion yu ma amoon ba mu juddoo ba léegi yépp dafa dee complètement maanaam lu bëri safatuma dama toll moment boo xamante ne ne euh, mun naa wax ne ne góom bu mag a mag la bu fàtte lépp lu ma amoon ci passion muy politique muy seetaan lii walla lii walla lale et cetera waaye dañ ko expliqué naa ko ci livre bi dañu delloo su lépp ci loxo yàlla. Mm-hmm. Euh, jàppale suñu soxna aussi nga xamante ne ne mbir mi daf ko daf ko jàppoon loolu te yàlla defoon aussi mu ëmb. Mm-hmm. Euh, donc mu doonoon daal ay mbir yu bari yoo xam ne ñu bari xamuñu woon lu xew sama biir kër euh, mu jëm ci encadrement psychologique pour bañ a bàyyi loolu mu tas ñu mu yàquñu donc dañu si xeex xeex ko euh, si kàttanu yàlla tey alhamdulilah mun nañu si wax mun nañu si débat euh, mais c'était pas facile au début mais sant yàlla tey yàlla delloo nañu xolu muñ boobu te ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax muy si man muy sama soxna. Mhm. li ma jaaxal man euh, mooy en général sénégalais du bind ci ci parce que dañ naan malaanu sutura kerse bi on n'a pas l'habitude d'évoquer déjà nos malheurs les morts et autres gis na ci tubaab yi fréquent na ci nga dundu dara nga bind ko yow bi ñuy bind livre bi euh, lan moo la inspiré ba nga génnee ko mm-hmm. waaw tu as bien kii nga wax ni lan moo inspiré nga génne ko effectivement mën nga bind te doo ko génne parce que am na ñoo xamante ne ni Euh, dañuy am sax kay yoo xam ne dañ koy garder seen néeg di voilà di bind seen secret et cetera bind dafay dafay dafa mel ni da ngay yulleeku da ngay da ngay da ngay vidéo euh, man tàmm naa nag di bind parce que sooy xool si même question pays bi am na ay débat yoo xam ne dama si def ay contribution pour bind wax na leen lii laa si xalaat donc ba loolu amee dama sentiroon nécessité bind évacuer parce que nag man li ma ñoroon mooy man ma foor ma garder sama calme ma am sérénité ma am doole ji mën a tax ñu ma mën a wallu muy sama sama soxna ak magu vieux ma wallu leen donc mënu moo ko woon def dans un état de faiblesse donc dama moon temps bu ndaw pour mën a faj sama bopp très rapidement pour mën a jàkkaarlook ñoom nag mën leen a faj ñoom donc loolu sentiroon naa ma bind moo tax livre dama ko bind si si kii bu gàtt gàtt yan moment nga ko daan bind la nuit. voilà ak kañ nga commencé bind bi non bind bi la nuit le matin parfois sax dinaa dinaa yeewu suba teel dem côté géej euh, et cetera ça ça dépend moment bu ma dikkalee rek dama ko doon dama doon bind alors su ma bindee ba mu ba mu kii rek ma daal di teg waaye aw woon décision wu génn livre waaye ba ma bindee dama xalaat waajur yi ma ne peut-être man suñ ma su ma liiroon livre bu ma expliquer un peu parce que toujours malheureusement suñu xelu nit dañuy xalaat ne ne yu mel noonu du la mës a dal bien que chaque jour nag nga dégg muy dal ay nit parce que euh, ya gën a bees la rek moo fi am mais yow da ngay jàpp ne ne lu mel nii doo ko mës xalaat ci sa àdduna donc benn moment dama xalaat bind pour waajur yi daal di ne ah dama leen bëgg a alerter ne leen ah attention parce que complicité bu ma amoon ak sama doom ak nu ma nekkaloon ak moom xalaatuma woon ne lii dina ma mës sa dal donc yéen tamit moytu leen et cetera parce que ndogalu yàlla si lu ne lay ñëw mun na ñëw si sa alal mun na ñëw si sa doom moom sax wax na ko si alxuraan donc loolu ba mu amee euh, ma xalaat ne war naa bind pour partager ko partager sama douleur partager ko waajur yi pour que waajur yi tamit ñoom ñu jël seen i précaution wax leen aussi ba ma dalee nii laa def pour génn si tey alhamdulilah aw ma si benn problème parce que vieux damay ba léegi ñu ngi koy dund ñu ngi jàpp na ne yàlla moo ñu ko joxoon duñ ko mës a fàtte waaye tamit amuñu si métit parce que dañ jàpp ne ne euh, lu gën la si ñun waaw donc loolu suñ demee ba toll si rek ça veut dire que yàlla dimbali ñu si muñ euh, lii mu ñu teg. Ah, te loolu nag lañ bëggoon partager ak ak mhm. waajur avec la disparition de votre fils euh, c' est comme si l'histoire s'était répétée parce que wax nga ko ci sa benn entretien boo defoon sa benn neveu gaañu woon na ci même condition yi euh, Daouda Sam mu hmm. duggoon ci benn fosse seen école hmm. mu doonoon euh, lu la metti lool boo doon wax euh, cinq événements yi la gën a marqué ci sa vie te yàlla dogal li ñëwaat dal sa kaw hmm. euh, waaye da ne itam da jot benn soutien de taille bu la marqué un vieux bu la woo ne la il a perdu ses deux enfants ak sa femme enceinte ci benn accident bi mu la woowee di la dëfal wax la li ko dal lu mu la fi ci yow waaw man loolu daf ma xawoon sax jaaxal parce que Euh, daf ma woo expliqué woon ne ma moom moo nekk moom moo am accident moom la njabootam def accident si yoonu Mauritanie man déggu woon loolu parce que maa ngi nekkoon si si si après mu expliqué ma ne ma si benn jour bi la la la doom ñaari doomam ak jabaram bu am bu am bu bu bu bu ëmbal bu nekkoon enceinte alors euh, vraiment mu wax mu wax ju ju rafet Euh, donc ba mu paree pareeg man dama ko ne xaaral ma jox la sama jabar. Mhm. parce que dama bëggoon mu wax ak aussi sama soxna parce que dama bëggoon sama soxna comprendre que ne li li ñuy dund nii am na ñu koy dundi tous les jours. Mhm. wala moment bii sax ñu toog nii am na ñeen ñu koy dund. si àdduna bi donc. affaire bi si kër yëpp lay fëgg donc fëgg na suñu kër nañ ko nangu mhm. mais am na ñoo xamante ne ne peut-être mun nañu wax moo man sa duma gëw ma sax moo gën a metti maa ngi koy wax si livre bi bul bul wax nu mukk ne kii moo la gën a metti parce que ku si ak li ngay sentir si ku dem mhm. parce que complicité bi nga am man par exemple sama doom complicité bu ma am si moom euh, su ma wàccee ñooy nekk su ma nekkee kër gi ñooy nekk tout le temps ñooy nekk donc peut-être que méttit bu ma métti mënu wax ne ne kii moo ma gën a metti wala et cetera mais rek c'était une illustration te kooku vraiment maa ngi koy nuyu de passage wane na ngëm wane na vraiment gis naa ne daal dafa mel ni euh, dafa ne peut-être Thierno Bocoum mi mën naa wax ak moom mu comprendre parce que ñoo xaw a méngoo lu ñuy dund mhm. peut-être que ñu ànd ak moom ñu nekk environnement comprendre comme man tamit lu ma sentiré woon ne sama environnement comprendre luñ ma woon parfois wala sax parfois ñu doon bind ci internet bi comprendre lu tax sax nga génne livre bi ñu bëri am na ci politique euh, mhm. polémique. Mhm. parce que ñu ngi naan kii moom mu nga baal ma. Mhm. mais moom moo mujjee deelee. lu tax mu war ko bind. lu tax mu war ci def livre. c'est ça xam nga sénégalais xamuñu processus de deuil. xamuñu deuil. voilà phase yi ngay jàll loolu yëpp. est que tey jii aussi lii du permettre comme ni nga ko waxee ak ni nga ko defee ñi nga xamante ne dañoo nekk dañoo ñàkk ñu mën a def processus deuil bu normal jaar ci déni dem ci colère dem ci acceptation association parce que yooyu yëpp aussi ku ñàkk diine am na gaa mais aussi métit ci nit la bokk di nga jaar ci étape. waaw xam nga man satisfaction bu ma am si livre bi mooy bëri na lool lool lool lool ñu ma woow ne man dama leen a dëfal wala dama leen a faj maanaam amoon nañ pertoon nañ seen seen doom wala seen waajur affaire bi euh, bañ ko liiree daf leen a faj. donc loolu man satisfaction bu mag a mag laa si am xam nga am na fooy toll tamit euh, c'est vrai que am na benn polémique buy am yu bëri expliqué naa la moo tax ma def ko. Mm-hmm. te je pense que explication bu ma si bu ma si def yanu na maanaam mais am na fooy toll li ngay sentir mooy nan laay jugee si lii. Mm-hmm. waaw xam nga nit warul a fekk soo su amee naqaram ñu ngi koy mën a jàppale mooy lu mu jàpp na ne. moom la si mën a génnee nga accompagner ko si mu génn si parce que moo gën fuuf ak lu mu mënti mel noonu moo gën fuuf mu nekk si lu mu nekk parce que su nekkee si lu mu nekk si trou la su si génnul dootoo ko xàmmee te dootul doon nit donc loolu moo si am solo moo tax euh, li nga li nga li nga li nga wax léegi aussi am na solo je pense que euh, satisfaction boobu laa si am ba léegi am na ñoo xamante ne dañ may woo euh, c'est vrai que am na ñoo xam ne dañ may woo di jooy et cetera parce que mbir mi Euh, dafa dafay xool ay góom yu bëri waaw man nag stratégie bu ma jëloon mooy bul nëpp nëppal mbir mi da nga koy xool nii da nga koy teg nga xool ko maanaam il faut absorber la réalité mhm. lii yàlla moo la ko jox bul ne noo bul xool photo yi bul xool vidéo yi fàtte ko non non mënoo ko fàtte la preuve bu mu mbir mi dalee am na ñoo xam ne daloon na leen ay vingt ans ay quinze ans dañ ma woo di jooy mhm. parce que loolu moo ñëwaat si seen bopp man tey ñaanuma yàlla di jot naa absorber réalité bi damay xool vidéo yi damay wax dañuy waxtaane sax ñu doom ñu xam ne yàlla moo ñu ko joxoon xañ ko ay nit yàlla jëlaat na ko anam bu mu ko jëlee c'est vrai metti na mais li gën lañ jàpp na ne parce que mënoon na ko jëlee neneen mënoon na nekk si biir force bi dootu ñu ko gisati mu réer wax naa ko si mhm. livre bi su boobaa ba fi may toog ak yéen maa ngi naan sama doom fan la nekk donc gis nañ si voilà sant nañ si yàlla vraiment sant yàlla bu baax a baax bi mënul ñàkk. honorable euh, une dernière question ñu ngi sant émotion bi di di monter ci yow sax. Euh, euh, ginnaaw génnuk àdduna Vieux Barky gis nañu élan de solidarité sénégalais yi. message yi nee nga président Sall war na la téléphone soxnaam déplacé wu na ñëw mais itam da nga ne jot nga lu tolloog mille quatre mille sept cent SMS yoo xam ne mënoo ko woon a mais ci sa livre bi ñu seetlu que ne dernière page yi da nga ko consacré ñi la bindoon ay message am yoo fi sax publié tey jii nii euh, ginnaaw loolu yëpp ak di sénégalais yi wane ban enseignement nga nga jàngat ci génnu àdduna sa sa sa sa doom bi. non sénégalais yi mënuma leen a remercier euh, remercier yi su ma koy def amul app c'est-à-dire wax naa ko parce que moo tax livre bi bëgguma fi citer tur sax. Mhm. dama ne ñëpp ñu ma jàppale. parce que am na ñoo xamante ne métti lañ mbir mi. am na ñoo xamante ne ne bind nañ ma ay message am na ñoo xamante ne ne jàppale nañ ma si te xawma leen woon sax mhm. donc mënu woon nekk foofu di cité naan diw diw diw et cetera dama ne ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ si rek am na jàppale boobu am na fu ma yegg fu sore sori sama xol ñi nga sms yi sax dama ne 1700 ba ma tontoo tontu tontu une semaine après des na encore 1700 yu ma mënta lire sama Facebook je pense su ma juumul j'étais à 7000 messages ou 10 mil messages yoo xamante ne ne dañ ma ko envoyé pour pour mën ma mën ma dëfal donc sénégalais yi solidarité bu ñu am si mbir mi ah man mënuma am seen pay te loolu nag dafa amoon solo loolu parce que su ma doon tëdd guddi toujours dama doon def maa ngi koy wax si livre bi su ma nit ñi di wax ak man si diine di wax ak man di ma dëfal dama doon tànn si wax yu gënoon rafet suñu tëddee guddi avant ñuy nelaw mooy ma koy waxaat sama soxna mm-hmm. noonu laa ko doon dëfalee waaye interview kii Facebook bi lu ñu may envoyé si kàddu yu gën a rafet di ko ko liiral di ko dëfal loolu donc nit ñi doon ñëw di ma wax nit ñi bu doon bind di ma wax ñoo ñu bokk nañ si ñu dëfal sama soxna ñu ma dëfal parce que jox nañ ma euh, élément de langage yu tax ba mun a euh, dépasser dépasser loolu wax si wax joo xamante sama soxna dina ko comprendre ba tey alhamdulilah rabbil alamin euh, mu ngi si jàmm. alhamdulilah rabbil alamin honorable ñu ngi lay remercier bu baax a baax. waxtaan bi mënoon naa gën a yaatu. mënoon naa gën a yaatu mais. Ah, voilà ñu ngi lay jaajëfal daal ci ci li nga nangu ubbi sa xol. Euh, partage ak spectateur waxtaan bi gën a continuer. c'est tout à fait normal que pour pour ah, les boo amee doom da ngay ragal ne lu ni mel bu la daboon jamono ji fan nga koy wékk wala sax da gën a jegeeral sa doom. Mhm. donc c'est tout normal que xolu c'est vrai que c'est la première fois mu daal moom mooy Gilles là larmes aux yeux quand je parce que am naa doom aussi. voilà waaw la di ñaanal doomam di nga xamante ni euh, tey ñàkk nañ kenn si ñoom muy seen yaay muy ku leen jege. Mhm. muy seen doom man moom boo ko waxee daf may fàttali parce que aussi ñun ñaar ñooyam am nañ ci cas. Mhm. perte naa sama sœur perte na sœuram. Mhm. donc lu ci nit wax rek xam nga ko. lu ci nit waxit dund nga ko. te am na lu des li nga xamante ni kenn mënu koo expliquer métit moom. méttitu ñëpp la tey boo ca jaaree ba pare képp ku am méttit da ngay xam li muy dund sama yaay rek laay dégg mu naan loolu laa xaw miis mhm. xëy na nag moom moo xam la tax mu di ko mhm. bu ñu ko temps bi mayoon sax mhm, du du kii effectivement exemple yi bëri na bëri na temps bi mayoon tam dinañ wax ci euh, gane ak sa doom bu jigéen un mois après xanaa rek nga résumé ñu en dix secondes rek naissance boobu nu ko accueillir waaw euh, yàlla joxaan nañu rek yàlla joxaan nañu ñu war ko téye téye bu rafet xam nga ne Euh, lu ñu yàlla di jàngal mooy bëggal loo moomul waaw bëggal loo moomul c'est-à-dire lu ñu la jox rek bëgg ko ni nga ko war a bëggee waaye jàppal ne moomoo ko donc yàlla joxaat nañu ñu ngi si jaamu yàlla ñu ngi koy toppatoo bu baax alhamdulilah rabbil alamin dama bëgg a profité aussi si occasion bi jaale euh, famille yu décédé Maroc waaw parce que loolu voilà euh, lu metti la ñu ngi jaale famille yi vraiment euh, ñu leen di massa massawu si si lu dal seen doom jërëjëf honorable ñu ngi lay jëfal bu baax a baax merci beaucoup ñu ci profité waale di euh, souhaiter un joyeux anniversaire à Aïssatou Niane un coucou également à Ramatoulaye euh, Diagne bi nga xamante ne ak képp koo xam ne yónnee nga message ci euh, facebook.com slash good morning 2STV question yi bëri woon nañu mais yaakaar naa def nañu tuuti tour de table bi ci question yi nga xam ne Modou Awa wax na ko ak Khadija si donc ñu jox leen rendez-vous la semaine prochaine incha allah mercredi ñu ngi lay remercier bu baax Thierno Bocoum de votre disponibilité merci à les téléspectateurs et puis euh, rendez-vous demain pour un autre Good Morning. lii du indi akara bi. Euh, Sophie wax nga dëgg wax nga dëgg <laughs> akara bi ma xalaat. <laughs>